وبالله أستعين في كل أمور وعليه التكل في كل دهور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الله نيجي تولون تي سورة البقرة tolloon ci ñeenteelu xisib bi ci lañu war a commencé tolloog ñaari téeméeri aaya ak ñaari yaakaar naa du ko sori xam naa ne dig digal yooyu daal tey ci la ñu war a commencé tolloon itam ci mbiru aj màkka ba tolli tey ci mbiru sànni jamra nga xam ne dañu wax ne li waral sànni jamra ba nga xamee ne sunu borom jox na ndigal yent yàlla ibrahima pour mu rendi doomam jooju ñu wax yent yàlla ismail ba mu koy defi am na ku ko doon jéem a gàllankoor di jéem a naxasal am xelam ak jaxase kooku ñoo ko wax iblis xeer yam doon jël nag di ko sànni nee ñu loolu mooy sababu sunu borom di ñu sànniloo jamra jamara boobu nag boo ko sànni dafa am kàddu yoo caa toftal dafay ànd ak wax wax yooya ah tabarakallahu moom la sunu borom di nettali fii moo tax mu ne waskuru tudd leen allah yàlla su ngeen dee sànni jamra allahu akbar ji na takarnaase kay def leen ko fi ayyaamin ci ay fan yu tuuti maadudaat yu mën lim yu ñuy wàññi mooy ñetti fan rek di mooy ayyaamu tashriq yi nga xam ne bu fan tabaski jàllee yeneen ñetti fan yi mooy ayyaam maadudaat waaw kay xam na lépp yéen a ngi nekk boori boori boori minan fële pour sànni jamra yeeg yooyu ñetti fan yooyu lañ ci war a sànni jamra sooy sànni jamra bi boole kaa kabar di tudd yàlla bu baax sunu borom nag nee na bu fekkee nag da nga am empêchement am yeneen yitte tax yeneen ñaari fan yi sës ci tabaski nga yemale fa mbir ma ah ba baax na amuloo ci bàkkaar waaye nag bu la fa jant sooyee de bu la fa jant sooyee rek da nga fay toogaat ba ñetteel fan ba nga sànni ko door di yewi ko de waaw fa man taajjala képp ku gaawe sànni jamra booba ci minan fii yow mooy ni ci ñaari fan lu ñu waroon def ñetti fan moom mu gaawee ko ngir yeneen i yitteem wala ngir leneen ak yeneen i muraadaam daal tax mu def ko ñaari fan waaw d'accord waaye nag moom euh, fanu ñaari lam boobu nga xam ne ci la sànni jamra ba na fexe ba ko fa jant sooyee waaye bu ko fa jant sooyee de moom day amaat beneen mbir moom kon bu boobaa dafa continuer toogaat fa xaar fa ñe ñetteelu fan tabaski fan ba ñeenteelu fan tabaski ba daal ci gàttal rek nga mën a dégg sunu borom ne lu ñu waroon def ñetti fan nga def ko ñaari fan ah fa daa ismaali amuloo bàkkaar ci gaawe gi nga ko gaawe waaye wa man taaqara képp ku tardeel sa satni jamra bi mooy nga gannaaw ñetti fan tabaski ya gannaaw ñetti fan yi sa sa ki yow moom nga tànn def ko toog fa ba ñetti fan ya jeex sànni ko fa kooku it fa laa isma alayhi amu ci bàkkaar kon tànn googu loon sunu borom tànn ñaari fan yi bu defee nañu ko war a defee amu ci bàkkaar ki nga xam ne itam dafa am ñetti fan tabarakallahu defee ko nañu ko war a defee amu ci bàkkaar ndax kenn ku ne jëfi nga ko ci ndigal yàlla li may taqaa ñeel képp koo xam ne ragal na yàlla ci biir aj gi nga xam ne dafa aje comme ni ko sunu borom santaane tabarakallahu ne wattaqullaha ragal leen yàlla ci ajji lu ci bokkul bu leen ko ci boole waala moo xam leen bu baax na annakum naka yéen ñii yéen doomu aadama yii yéen ñëpp tuhsharuuna def na leen pang dajale leen ilayhi jëme leen ci yàlla mu lijjanti seeni dossier waaw kay ma ngoog nit ñi nag ñeenti façon nit rek a am waaw am na koo xam ne moom adduna rek lay wut utul leneen am koo xam ne day ut adduna ak laaxira am koo xam ne utul adduna utul alaaxira am koo xam ne dégg nga maam euh, Euh, yàlla dong lay wut wutul leneen nii la waaye aaya ji ñuy waaj wax kooku ñuy wax ubay tañ ko daan dàkkantalee axnas ibnu sariq benn naafeq la woon nga xam ne li ko toppoon ci ay naafeq matoon na ñetti téeméer yu teg yu bokkoon ci bani zuhrata lu tax ñu tuddee ko axnas nag di ko ko dàkkantalee mooy keroog xare badar moog mbooloo ma ko toppoon dañoo làkkoon ne bu fekkee ne dañoo lakkoon seen naafeq gi ne bu yàlla defee sayyiduna Muhammad gañe a ah ñun moom su nag nooñeel feeñale guñ ko ci moom bu fekkee gaayee ñoo gañe woon ñun ak ñoom yéeféree gañe ñun ak ñoom moom amoon nañ relation bu dëgër déggal lii rek naafeq noonu lay mel nga xam ne ñoom la rabiatul adawi danan tusil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hada la amri fi lfiaali badiu law kaana xubuka saadikan la ataatahu inna almuhiba liman yuhibu mutiu ma ngoog xam nga naa fekk li nga tax bon mooy bu ñëwee bu toogee ci sa kanam am éloquence lool wax ja neex lool saa bu waxee daal bu wax ji teree gongo rek ngay féetewoo gongo rek ndax neexaayu lam yi waaye bu jëfee nga ne cam ndax iblis a ka noonu mu amee woon ci jamono yenent bi nag ba léegi am na ci façon nit yoo xam ne suñu jëlee kàddu di wax da nga naan lañ wax ay dëgg waaye hee nga doyul sëkk wa mina naasi am na ci nit ñi man koo xam ne yu'jibu ko dana la yéem lool xawluhu parolam mooy kàddoom fil xayaati dunya si dund adduna bu jege jeex bii waaw moom daal bu waxee mooy wa in yaqulu tasma li qawlihim fekk ka annahum qusubun musanadda noonu rek la wa yusidu muy seedalo allah yàlla ala ma fi qalbihi li nekk ci xol naan man daal maa ngi seede sama digganteeg sama borom yàlla xam na ne lii may wax mooy dëgg wala fii fii dañ koy def di waxante naan yàlla xam na ne lii ma la wax mooy dëgg te la wax naan yàlla xam ne lii ma la wax moy dëgg ay fen rek ay fen rek yàlla xam na ne maa ngi ndakaaru te nekkoo ndakaar déggal ma lii kenn mës naa dégg lii doy na waar te waxuwa kooku di dangaam noonu aladdul xisaam moo gën a tar ci xuloo moo gën a mën a xottantal si xuloo ku mën a xottantal la ci xuloo kay kàddoom gu ne ak googu soo dajeeg moom bay wax mën naa waxa waxa waxa wax ba peeg la te fekk kàddu gi jëmul fenn loolu nag lu mat a xàmmee la hmm? moo tax na ñi moom toujours lañ la baaxoo di wax ku ci wax nga ne yàllaa ko jàngal waaye ku ci jëf nga ne iblis ka yar ndax wax ji ak jëf ji dafa safaano bu ëpp wa ida tawalla bu dummoo yoo joxe ginnaaw saa dox na fil ard ci suuf si li yufsida pour mu yàq fiihaa ci suuf si fépp fu gis lu baax ñuy ànd walla wala ñuy góorgóorlu ci lu baax mu wax lu ko yàq maanaam mu wax lu ko jaxase daal mu wax lu yàq rek fu gis ñuy def lu baax mu découragé leen wax lu koy découragé wala mu wax lu koy sare yamu ca su génnee dem ci àll bi tooli jàmbur yeeg bëyi jàmbur yeeg mbaami jàmbur yeeg fasi jàmbur yi lu mu ci fekk rek yàq wa yuhlika muy yàq alxar sa mbay génn fekk toolub jàmbur mu taal ko wa nasla ak ngir si yi fas yeeg bëy yeeg yeeg nag yi lu mu ci romb rek yàq rek yàqaraj su ko defee nag wallahu yàlla nag moom wax dëgg yàlla laa yuhibbu bëggul alfasaada yàq mu yàlla du gërëm kuy yàq mukk ku mel nii noonu mu amee woon ci nit ñi le noonu la dañul di am ba léegi ci nit ñi gis ñoo xam ne yàq rek moo nekk seen bopp yi te wa idaa qiila bu fekkee waxeef ne lahu ko ittaqillaha ragal yàlla ci sa jëf ju ñaaw mu am fayda ak dangaarlu gu yam ni axadathu jàpp ko al izzatu jom jom loogu rëy rëylu waaw di wane ne daal moom kilifa la dafa tedd déggal lii waaye xam nga ba mu ne axadathu ñu yaakaar ne izza boobu ñuy wax izza tedd nga la wala izza ah, tagg la sunu borom topp ci dugal ci sësala ci nag bil mi kon nga xam ne tedd nga googu kay ak jom jom la googu mooy izza bu ñu bu ñu bu ñu ŋàññ la rek loolu koy jàng ko ci balaaxa mooy tatmim la rek sunu borom ne fa hasbuhu doy na ko jahannam sawara woowu ñuy wax jahannam doy na ko sëkk ab place ëllëg yowmal qiyaama luus maam sawara jahannam la wala bii sa bon na almihaad ifance boobu laay loolu di taxakum la ifance koy da daan nooy waaye ifance boo xam ne sawara la kooku koy suñ la ko wek nga xam lay saboote waaye noonu mu amee ñu baax di góorgóorlu noonu la amee seen safaan ndax wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayni lu la ñaar ñaar laa ci bind kooku ji wax Suhayb ibn Sinan ar-Rumi moom ba mu jébbaloo dugg ci lislaam yéeféer yi dañ ko doon lor lor yu méttee métti fekk moom mag la mu ne leen man li ma leen di xamal mënatuma leen a jëriñ dara su ma fi toogee ndax man mag laa su ngeen ma bàyyee itam ah tabarakallahu nekkuma ku leen di lor ci dara ndax man awma alal lii rek laa fi yor kon te ngeen ma bàyyi ma gàddaay dem ci yonent bi gaa yi bàyyi ko mu gàddaay ànd ak yonent bi nangu gam nangoon nag loolu la suñu borom di wax wa minan naasi am na ci nit ñi kon du ñëpp comme liñ la waxoon léegi ci ñetti façon yi foo toll yaa mooy yàlla di wane na yàlla nga sopp te soo jëfee jëf ji wuuteeg la nga doon woote ci sa kaddu mu ne bu fekkoon ne li ngay woote sa digganteeg moom ci cofeel dëgg la kon daa topp yàlla waaw ndax nit ku ne day topp ka mu sopp ah waaw yaa ngi ni boo fi amee xale bu jigéen booy génn lu mu bëgg lu ne dala koy jaral waaye yow naka ngay bëggee yàlla te li yàlla bëgg jaralu la dara nag doy na waar Suhaybu nag tabaarakallah wamee naa si am na ci nit ñi man yasri koo xam ne jaay na nafsahu bakkanam lépp mu jaay ko jëmmam yépp mu jaay ko yàlla ibtigaa mardatillah ngir sàkku ngër maade borom bi kese jaral na ko lu ne lum ci da jaral na ko wallahu yàlla raufun aji ñeewant la bil ibadi ci jaam yi te mooy wan gim leen wan siraatal mustaqim ba ñoo xam ne lii mooy njub dégg aaya ji ñuy waaj wax nee na mi ngi wàcc ci ku demee ne Abdullah ibn Salaam wala ñu mel ni ki ñoom lenn ci yahud yi nga xam ne dañu tuuboon ba ñu tuubee bëgg a am lu ñuy doxalaale yenn yu ñuy bëgg a doxalaale ci seen diine yu seen diine nangoon ñu ne dañ koy doxalaale ci biir diine jii mënul ne waaw kay asuruutu moom li tariqi laa li seeti lay demee waaye noonu ñu ko waxee woon ci ku mel ne Abdullah ibn Salaam noonu lañ ko waxee bépp jullit boo xam ne da ngaa dugg ci lislaam yow it wax ji dalaa jàpp yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla udxulu dugg leen ba jeex tàkk ba raw silmi ci lislaam mooy dugg leen ci lislaam kaafatan mbir moom ngeen di way duggee léppam waaye ne ci sariya nga nekk ci lislaam nga nekk diinay lislaam loola ci arrangé nga jëfandikoo loola ci arrangé wul nga bàyyi a ah, booy dugg ci parti fii wala ab daayira wala syndicat dafa am condition yoo xam ne moom la ñuy teg ne lii mooy istati syndicat bi wala mooy istati parti bi wala mooy bu daayira bi ku fi nekk nii nga fi nekkee soo ko mënee nga nekk soo ko mënul nga génn waaye yow nga nangu kaa nangu ci yi nag naka ngay ñëwee ci biir diine la ñëwee la lii diine nangu nga naan lii laa ciy def ak la du ma ko def loolu mënul la de loolu la fi gars yi nekkee nag hmm? udxulu fi silmi kaafatan sunu borom ne nag yow mi nga xam ne yaa nekk ci diine iblis da la jéem a ay porox ndoll yoo xam ne ca ngay jaar pour mu yàqal la yu bëree bëri yoo xam ne sharia daf la ko tere woon iblis moo lay rafetalal mbir mi nga jàpp ne lu rafet la fekk yaa ngi lakk dëkk beeg peccam ginnaaw wala tattabiu bu leen topp mooy bu leen di jëfandikoo xutuwaati cheytaan ñelli ñelli cheytaan yi innahu naka moom iblis lakum pour yéen aduwun noonu la mubiinun bu bir nu muy noonee kon moytu leen ko nee na gannaaw bu ngeen nekkee ci biir sariya wala biir jiine ngeen juum ah yàlla moom ko bëri sutura la leen a baal bu fekkee da ngeen a juum bu ngeen yëgee juum ngeen ngeen arrière loolu moom yàlla daf leen di baal nee na fa in dalaltum ndegem tarxis ngeen min baadi ma jaatkum gannaaw ba mu leen ñëwalee albayinaatu lay yu leer naññ nekk ci diine juum ci walla nga woor juum ci sa biir koor kooku moom yàlla mën na laa baal aj màkk nga doon def juum ci sa biir aj màkk te la nga def yaa ci juum ah am na nuñ lay wax na nga koy négocier yàlla baal la aw kay fooy jaar koor itam noonu lenn lu ci ne noonu rek lay demee faalamu xam leen bu boobaa ne anna allaha naka yàlla azizun mooy aji nag ci nguuram waaye xakimun aji teg mbir fa mu yelloo azizun hakim nii rek la nit ñi nag xaaruñu fi hal yanduruun xaarandi ko wuñu ñoom ñi bañ a dugg ci diine léppam ba jeex xaaruñu fi illaa an yatiyahum lu dul dem ba ñëwal allahu mbir yàlla mooy daal xaaruñu fi dara dara lu dul duma yàlla rek ndax lépp lu yàlla war a wax wax na ko ak ñoom fu mu war a leeral leeral na ko ak ñoom ñu lànk na duñ jëfandikoo ah ma li ñu dal dal ñu xaaruñu fi lu dul yàlla ñëw mbiram fii zulalin ci ay niir ay ker minal xamaami yu bàyyi ko ci niir ndax yàlla bu daan ay xeeti mbugal yooyu da ko jaare ci niir malaayka indi ko nga yaakaar na lii lu jaar yoon la fekk na bu sottee rek du baax loolu ñëw na ci alquran ba taay ci yàlla bëgg a duma jaare ko ci ay niir haada aaridum mumtiruna yu kenn xamul yooyu bëri na ci de wal malaayka ak malaayka yi wa qudiya atteef al amru mbir ma te yi bu ñëwee nag moom amul amul prolongation dañuy siffler rek yëf fi jeex wa qudiyal amru atteef mbir ma mu jeex mu jeex kon noonu rek dégg nga atte mbir yi rek watur jaaw def na leen delloo nag def na delloo al umuru dossier yëpp mooy mbir yëpp ilallahi jëmee ko sunu borom subhanahu wa taala pour ñu lijjanti dossier yooyu na sa laajal bani israil laajal giir bani israil kama ataynaahum bëri na bu ñu leen joxee min ayatin ci ay kéemaan baynatin yaa aji leer nañ mu yàpp gëmmentu baak lem gaag waaye jàngoon nañ la ca sunu borom ne waman yu baddil képp ku wottee remplacé niamatallahi xéewali yàlla yi nga xam ne xéewala ne leen ko bokk na ci xéewal yi ngëm te gi gën a mag ci xéewal yi bokk na ngëm yàlla ak nekk ci lislaam ba téere yi dañuy wax ne ñàkk koy sant sax mën na la pousser ba nga ñàkk dee ci lislaam xéewali ngëm nag sénégalais yu bëree bëri ak xéwali jàkka xamuñu ko woon waaye jamono bii moom tabaarakallah xam nañ ko ba kenn ku ne yaa ngi ciy jooytu fa nga yaakaar ne boo fa jooytoo wala boo fo tëjee sa gémmiñ daañ ci mën a wax yolamal yaa ngi fay jaar ndax yëngal yëf yi xéewal la woon waaye comme dara musula ci ari rek doo xam ne lii xéewal la doomu aadama nag noonu rek la mel min baadi ma jaatu gannaaw ba nga xamee ne ñëwal na ko ah xéewal googu ba mu ñëwee lislaam ak yi ca tegoog yi ca tegoog yi yëpp waaye ñun dañuy yaakaar ne lekk gi ngay lekk rek moom ngay jàppee mu nekk xéewal yore bi ngay sol rek ngay jàppee mu nekk xéewal oto bee kër gi ngay dëkk nga jàppee mu nekk xéewal waaye ngëm yàlla gaag julli gaag nangul yàlla gi nangul gu sell gi yëpp ci façon xéewal la fa inna allaha naka yàlla shadidul iqaab potar ay dumale de moytu leen ko attention ah. nee na zuyina rafeteleef na ah. lilladina kafaru ñeel ñi nga xam ne dañu gëm yàlla gis nga rafetal gi ñu ngi ko tëb delloo ci seytaane wéeru ko seytaane waaye xaqiqatan kay kay a àdduna kay dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yàlla waaye du seytaane waaye min babil majaz hmm? rafetaleef na ci ñi gëmul yàlla alxayaatu dund bi adduniya ñi nangul yàlla dañuy jàpp ne lépp adduna la yam waaw te waxum mbir moom ñoom yasxaru ñuy xàqataay aka mokke aka ñaawale waaw aka ñaawale min alladina amanu ci gaa yi nga xam ne ñoo gëm yàlla tabarakallahu ba yaakaar na jullit ñi dañoo tardé wala dañu déggul jamono ngir jëfandikoo gi ñu nangoo jëfandikoo ndëgelu yàlla ñoom seen ñàkk a nangoo jëfandikoo ndiko yàlla yooyu tax na tabarakallahu ñu yaakaar ne rek ñoom dañu tardé fekk te déwul noona te déwul noona waaye wala si ne gaa yi nga xam ne ittaqaw ragal nañu bokkaale yàlla fawqahum tiim nañ leen yowmal qiyaamati mooy ñi nekkoon ci lu neex yàlla tiim nañ leen ëllëg féete leen kaw di def bës foofu wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yashaaw ku ko neex bi xayri xisaabin ci lu muy limité wërsëg ba ndeysaan boo melee ni sa waa ji ba ka sëriñ bay dugal xalwa sëriñ bi dem ba ci biir xalwa ji yow nag ah sëriñ nag moom bi kayri xisaabin de waaw bi kayri xisaabin nag bi kayri xisaabin déggal lii mooy limite wërsëg woo xam ne amul limite amul limite tabaarakallaahu kon yàlla moo fay wërsëgale wërsëg woo xam ne amul limite da kay bàyyi rek muy jooru nam la neexee na nga ko bëggee nee na kaana nekkoon na adnaasu nit ñi ummatan nekkoon benn xeet ummatan diw xeet waaxidatan bay benn bu njëkk bu moom nit ñëpp ñoo bokkoon benn diine waaye nag bokkoon benn yëf yàlla nag commencé di yónni yonent yi ba ñu yónnee yonent yi nag ah tabaarakallaahu ndax dañu wax ne la ka daggee ci yonent yàlla Adama ba ci yonent yàlla Idrissa ñëpp ci benn diine lañ nekkoon ñu ne déedéet la ka ci yonent yàlla Adama ba ci yonent yàlla ñëpp ci benn diine lañ nekkoon diine yi daawul am wuute. waaye nag dem nañ ba ci biir sunu borom daal di ne nii laa na doxee nii fa baasa yabal na allahu yàlla annabi na ñu ñu solo ñi mooy yenent yi mubashirin mbir moom ñuy aji bégle ci aljana wa mundirin ak mbir moom ñuy woy xuppe ci sawara ci képp koo xam ne nanguloo yàlla ñoom daal seen mission mooy ku fi ne tabarakallah ka annaa summatan waahidan nag boo ko xoolee nga xam ne bëri na lu fa luñ fa daggee de luñ fa daggee de kon nga xam ne min baabil ijaaz dégg nga ko bu baax wa anzala wàccee na maahum ànd ak ñoom alkitaaba ay téere bil xaqi lu tax téere yi ñëw nag sunu borom ne li yaxkuma pour na atte moom téere yi moo xam alquran la wala téere yi ko fi jiitu bayna naasi diggante ñi fii maxtalafu fii ci lépp loo xam ne wuute nañ ci seen mbiri diine pour alquran dikk atte ko wala téere yi ko jiitu woon avant alquran jamono yi ko jiitu woon ñu daan atte loola pour mu leer pour bu ñu amee problème dellu si comme ni nga gisee ne gars yi ni ñu organisé seen adduna yii tëral seen i projet ak seen i loi ak seen i constitution nga xam ne boo amee jafe-jafe dellu ca seen mbiri adduna yii donte bàyyi nañ fi bu yàlla bi ah yàlla it da ko indi pour mu régler adduna bi gars yi nag jàpp na seen bos moo gën a dëppoo ak jamono moo gën a méngoog jamono moo tax nag musiba am waaye sunu borom nee na wa maxtalafa wutewul fii ci moom seen mbiri diine wutewuñ ci illa alladin lulu gaa yi nga xam ne utuuhu joxe foon na leen téere ñu gëm leen bàyyi leen min baadi ma jaatum gannaaw ba mu leen ñëwalee albayinaat lay leer nañ ba yan ngir ak mbewte ak ak fuuy rek kese moo tax baynahum bopp nekk na seen diggante waaye fa hada gindina allahu yàlla mooy sunu borom subhanahu wa taala alladina amanu gaa yi nga xam ne gëm nañu lama xtalafu ngir la nga xam ne wuute nañ ko fii ci loola min alxaqi laala moom dëgg la yàlla gindi leen bi iznihi ci nammeelam ñi nga xam ne daal gëm nañu moom lu coow li bëri bëri yàlla dana leen wan dëgg ñu xam ne lii mooy dëgg man may leen it wërsëg ñu mun kaa topp doonte ñu la ñuy doom la fi am wallahu yàlla yahdi dana gindi man yashaaw ku ko neex moo koy jubbanti ila siraatin jëme ko ci yoon mustaqimin bay aji jub te mooy mooy mooy mooy euh, yooyu la saw dégg nga yéen jullit ñi nag li ngeen xaw ma dangeen ngeen yaakaar ne da ngeen naan dañoo gëm yàlla nii rek yëf yi jeex mu jeex noonu rek te du am benn natt bu tegu ci seen kaw te fekk na la waral wax ji dañ ne keroog ba ju demee xare Lahzab ñu gaaw leen fa gaaw bu metti métti daañ ko jàng ci kanam affaire bi tar xaw métti ci ñoom lool yéefar yi ëpp nañ leen te gaw nañ leen ak naa fekk yi nekk seen biir rek yëf yi daal dara mënu cee leer ñu xaw a jaaxle lool ci la yàlla wàcce aaya ji nag nag toujours mbir yi ne na toujours day yomb de waaw ni muy yombee ni lay naqaree ni muy yombee ni lay jafee sunu borom ne ama xaasibtum wala ndax da ngeen a foog boog yéen jullit ñi anta duxuluuna da ngeen di dugg aljannata aljanna ah da ngeen a yaakaar da ngeen di dugg aljanna gëm naa rek ngeen sax ci mbir mi yomb yomb gi rek wala ma yaatikum te ñëwalu leen te ñëwalagu leen masalul ladina comme la nga xam ne dikkaloon na gaa ya nga xam ne xalaw passé woon nañu min qablikum la leen fi jiitu woon ci ay diine am na yuñ daan jànkonteeg ci seeni xeeti pas-pas ci jafeñ-jafe ña ki nattu ah ba ca la dee dugg ci aljanna yéen ngeen ne gëm ngeen ngeen yaakaar la dikkaloon gaa yee du leen laal loolu ngeen yaakaar jaaduwul mu mel ni nag waaye ñoom bañ leen nattoo dañoo muñ kon yéen itam médicament bañ jëfandikoo woon ba leen maladie nattu dalee yooyu nit maladie boobu dama bëgg bu leen dalee tabaarakallaahu ngeen jëfandikoo médicament muñ massatuhum suñu borom ne ñooñu daal laaloon na leen albasa ñàkk ñàkk lool bekkoor bu metti lool wa dara aki feebar xeeti coronavirus ak xeeti choléra xeeti xeeti xeeti xeeti njàmbataan ak xeeti xeeti yooyu mooy wa darra wa zulzilu yëngaleef na ci ñoom xeeti balaa yeeg xeeti nattu yi xataa yàqul dem ba wax sax nag dem ba wax na ar rasulu yenente ba leen yàlla boole woo nag walladina ak gaa yi nga xam ne waaye yenente bi nag wax gi muy wax lii muy bëgg a wax dakaa wax min baabi du'a waaye defu ko nag min baabi caalit de waaw kay dem ba wax na alladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm walladina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu maa woo ànd ak moom ndax mbir mi jafe-jafe yi ni métier dem ba ñu jaaxle lool comme fi Sénégal toll ci corona bi fi mu nekk ne ñoom ñëpp ngi toll ci bunta mata nasrullah kañ la ndimbalal yàlla di dikk xettali ñu dimbali ñu ci njàqare lii ñuy dund ak balaa bii di lëmbe adduna bi di ñu koy dund kal ñu ba kenn ku ne mënutoo dem fenn mata nasrullah lii wax nañu ko sunu borom nag tontu ci kaddu ne ala dama ne inna nasrallahi wir na leen ndimbalal yàlla de xaw ma lan de waaye moom ah xaribun de gis nga nim gaay wax ji waaw indi ay jumtuwaay feddali yu dëgër lool yi wane ne lu jege lool la dégg ala ñu ne waaw mu ne inna xam nga lool lu muy def kay nasarallahi bëgg naa nga xam ne ndimbalal yàlla wér na ne ndimbalal yàlla xaribun lu jege lool la hmm? dafay gën ak jumlatul ismiya yi ci xew yëpp daal tabarakallah kon daal senegal nag tull nañ toll nañ ci matee nasrullah ala inna nasrullahi qarib ma ngoog euh, aaya ji ñuy waaj wax nee ñu mu ngi wàccoon ci kooku ñuy wax amru bnul jamuux nekkoon koo xam ne loxo bi dafa dagoon ci mbagg mi nay lool astafirullah nekkoon koo xam ne kon afan mag la woon moo xam ne dafa amoon alal te ñaare ñoom ba ñu amee alal dañuy bëgg a laaj li ñuy joxe nu mu toll xam nga dagan na ci la nga jàngoon lañ la waxoon démb ci balaaxa ngay laaj te mbir te mbir ma ngay laaj amu njariñ ñu gis ne amul njariñ ñu tontu la tontu loo xam ne tontu li muy yóbbaale li ngay laaj tabarakallahu ëpp ko njariñ fuuf loolu jàngoon nañu ko démb waaye tey danañ ko waxaat mu ne waaw yow yonent bi ñun suñuy financé suñuy joxe lu ñuy joxe yasalunaka daañu la laaj yow sayduna muhammad maa laa yunfiquna ana lan la ñuy financé li ñuy financé amul solo fañ koy financé moo am solo ndax léeg-léeg nga jël million wala milliard yóbbu ko ci làmbu ji est fi nga dugg am na solo yóbbu ko ci soirée ba ah yóbbu ko ci xeeti caaxaan yi xeeti sabar yi xeeti xeeti nangam ne est-ce que fi ko dugal am na solo te milliards la de ay milliards sax nag ay milliards kon nga gis ne fi nga koy dugal amul solo waaye ñi ngi koy jox moo am solo waaye bu fekkee dërëm la nga dugal ko fa nga ko war a dugal kay kooku baax na ala yunfiquun xul ne leen maa anfaqtum lépp lu ngeen di dépassé di ko financé min xayrin ci alal moo xam lu tuuti la wala lu bari loolu amul solo fi ngeen koy financé li ngeen di financé amul solo xam nga li ci am solo mooy ma wax leen fi ngeen koy dugal fa na ngeen ko dépassé déparé leen lil waalidayni ci seen ñaari waajur su ngeen amee daal bay jàppale ak a dimbale bala ngeen a dimbale kenn jox leen ci seen ñaari waajur yi nga xam ne ci la yàlla jaar la sa dikk ci fi yi njëkkal ci ñoom wala karabiin ak jege ñaale yi doom yi mbokk yi bàjjen yi baytax yi tante yi nijaay yi maam yi wala akarab yi nga ñëw ci ñooñu su ñooñu kiyee wala yataama ñii loo leen jox lu mu nga ko fa nga ko war a dugal su ki kiyee wal masaakin waaye da nga gis koo xam ne di borom alal ñii jege ko mu war leen a mën a jox mu wóor lañu ko aajoo lañu waaye ma ngay xool lañu ko pare ne ci làmbu ja pare na ko dégg nga maam ca dégg nga maam ca ca concert ba pare na ko ci lépp luy xeetu caaxaan mu yóbbu ko fa moo koy gënal foofu mu jox ko ñii kon nga gis suñu borom li muy jàngale foofu dégg nga moo tax mu ne ngeen jox ko yataamaa yi ak masakin yi ak wabni sabil yi ndax ñoo ko gën a yelloo sunu borom ne wa ma tafaalu ngeen jëf min xayrin ci yiw mooy alal ngeen jël ko financé ko wala leneen lu dul alal fa inna allaha wér na ne yàlla alimun aji xam la bihi ca loola jullit ñi nag ci njëlbeen xam nga du farataalu ñun xeex fuñ toll nag ñu koy mébét ta a bëgg lool waaye ba ko yàlla demee ba farataal nag mu mel ne dañ ci am beneen gisin wala beneen déggin sunu borom dañu xamal ne ne léeg mbir nga bañ ko fekk mbir ma ngay bañ moo gën fuuf ci yow bëri na lool doomu aadama lu muy dund lool léeg itam nga bëgg mbir fekk mbir ma nga bëgg sa musiba mu jaral la lu ne waaye ndeke mbir mi su ñëwee moo lay gàllankoor ci sa àdduna yàq sa àdduna yaxeet loolu nag comme mbir yi yàlla rek a xam na mi mujjëg na muy doxee soo muusee daal da nga koy tànnaloo yàlla rek comme le Cheikhul Hadj Malick waxoon del tànnaloo yàlla waaye bul tànnaloo sa bopp ndax mbir yi mujjëg mbir yi kenn xamu ko ku dul yàlla ya fi yàlla tànnaloon boppam ba léegi def ko fi boo xoolee amul benn changement waaye yii fi doomu aadama yi tànnal seen bopp di ko fi def ci misaal toujours nga gégg ñu am su ma yëgoon du def bii su ma yëgoon du ma jëlee su ma yëgoon su ma yëgoon su ma yëgoon loolu bëri na trop li muy am sunu borom ne kutiba farataaleef na aleykum ci yéen alqitaal loolu ñuy wa xeex woo moom xeex moomu kuruhun lu ñu cible lakum ñeel leen seen bakkan bëggu ko dara de ndax da ngeen yaakaar ne bu ngeen demee des ca waasa asa amaana an takrahu ngeen sib bañ shay an mbir te waxoo mbir ma ngeen di sib la lakum moo gën ci yéen de léeg ngeen bañ mbir te mbir maa gën ci yéen de gis nga ko fi ba tàyyi di contre mbir mbaa ngay bañ mbir ma xame moo ko waaye boo ñëwee nekk mbir ma sala sib ubbeeku nekk wa asa amaana an tuhibbu ngeen sopp shay an mbir mu jaral leen lu ne dank-dank àndatu leen seen sago waaye wa mbir ma sharrun lakum moo bono bon ci yéen musiba lay doon ci yéen nekk fitna woo xam ne lakkal woo xam ne da nga naan daal su ma yëgoon du ma ci duggu loolu bëri na léeg-léeg nga gis kër kër gi rafet ak yow nga ne su ma ko amoon te fekk na boo koy am ah, leneen lu ne mën na caa xaj yoo xam ne lay gàllankoor soxna oto tool tisi lépp day dugg foofu bépp xeetu mbir daal ma ngoog soyaan la wax de soyaan nag suñ ko waxee comme dafa nekk rew mën na jàpp ci lu ne nga bàyyi xel lool. wallahu yàlla moom yaalamu xam na li gën yéen tax mu koy def ci yéen wa antum yéen nag laa taalamuuna xamu leen dara dara ci mbir kon teey leen te ànd ak sago aaya ji ñuy waaj wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñu mu yabaloon ci xur woowu ñuy wax nax la nekkoon ca boori taif ba mu leen yabalee pour ñu gëstu jil ko yéeféer yi pour ñu gëstu jil ko yéeféer yi indil leen ay information pour ci yéeféer yi ak seen njëgg meeg seen lan ba ñu demee ñu yonent bi yebal ñu gis ci ñoom ñeenti nit waaw rey kenn ka jàpp ñaar ñi kenn ka daw léegi nag fa ñu ko defee ñi ngi ko defee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci ci ci ci ci ndey koor wala maamu koor ba ñu ko defee ci maamu koor noonu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jant bu so ñu gis weer wi ñu yëw ne yonent bi nag yow yow da ne woon weer sàngam ak weer sàngam dañ kaa araamal bu ci kenn xeex te sa gaa yi kii ñu rey nii ci weer wala ñu leen déet ñoom bañ koy rey booba weer yi feeñagul ndax bëccëg lañ ko rey wax ji na leer dikk nag sunu borom di tontu ci loola dégg ko bu baax ne yas alunaka daañu la laaj ani shahri ca weer wa alxaraam ba di bañ ormaal pour bu ca kenn xeex mooy ñeenti weer yi ma la waxoon démb xitaalin fii xeex ca weer wa xul ne leen xeex fii ca weer woowu yàlla xaraamal de ku ca xeex wala weer yooyu yàlla xaraamal de bu ca kenn xeex xeex ci de kabirun bàkkaar gënu koo rëy bàkkaar bu mag a mag la waaye am na lu ko gën a garaaw fexe ba nit ñi duñu dem ci jàkka ji fexe bay gàllankoor nit ñi duñ dem ci jàkka ji wala fexe bay gàllankoor nit ñi duñu dugg ci diine ak nu ngeen leen ko mën di gàllankooree looloo gën a garaaw bàkkaar boobu gën a garaaw fuuf wa saddun wàññi nit ñi an sabilillahi ci diine yàlla ji ku bëgg a dugg ci diine nga ayibal ko saboote ko sikkal ko wa kufrun bihi ak weddi yàlla weddi gi ñu weddi yàlla ñoom wal mas masjidil xaraami ak wàññi gi ñuy wàññi nit ñi ci jàkk ji ñu ormal ji ne kenn du dugg ci jàkk ji tëj ko wa ixraaju ahli ak génn ñooñ jàkk ja minhu ca jàkk ja mooy yenent bi ak waa këram te mooy ñun jullit ñi akbaru mu gën a garaaw bàkkaar fuuf indallaay fa yàlla ci xeex goo xam ne xeex ngeen ko ci weex weeru yàlla xaraama la ak ak ku ci xeex loolu ko gën a garaaw fuuf yéen kay da ngeen doon wax bàkkaar bu fekkee li yenent bi def loolu ngeen jàppee ne bàkkaar la li ngeen def moo ko gën a pire fuuf ma leeral ko man yàlla maa leen di wax loolu ngeen xam ko ngeen dégg ko hmm? sunu borom ne leen nag wal fitnatu bokkaale yàlla gi ngeen nekkee akbaru moo gën a garaaw fuuf minal xatli ci xeex googu ngeen di wax noonu le di ci sonn guddeeg bëccëg subaak ngoon yéen kay li ngeen nekkee gën a garaaw yéen jullit ñi nag yéen laay wax ñii di ñu weddi yàlla moo xam faramason yi la ak ñi jaxasoog ñoom yàqkat yi xeetu yàqkat bu mu doon rek bu gëmul yàlla day dugg ci lii yéen jullit ñi ñoom nag du ñu dañ di xeex ak yéen lu dul dañ leen a jëlee ci seen lislaam bu set bi jëmee leen ci lislaam bu takk boo xam ne yàlla du ko gërëmati jaral na leen nag di leen financé ay yoon di leen financé ay hôpital di leen financé di leen financé di leen di leen financé pour lan pour rek détourner leen indi leen ñoom ci la ne méthode bu ñu mën a jaar pour def ko daañu ko def te suñ koy def dañuy jaar ci ñuy woowee seen bopp ay jullit pour yéen mën leen a détourner dégguloo wala yazaaluuna duñu mës a dañ ñoom ñi gëmul yàlla ak borom pas-pas yu yàqu yi mosuñoo dañ yuqaatiluunakum di xeex ak yéen jullit ñi xatta yaruddukum ngir nañ leen wàññi delloo leen an diinikum wali seen diine ja ngeen nekkoon te mooy diine lislaam jëme leen ci ak weddi yàlla inistataau ndegam am nañu kàttan mun kaa def daal ak moyen bu ñu ko mën di defee daañu ko def te loolu yëpp ñun ñu ngi koy dund di ko gis comme ni ngeen ko xamee inistataau waaye sunu borom nee ne wa man yartadid képp ku min minkum ci yéen jullit ñi an diini yi bàyyi fi diineem dem dugg ci beneen diine kuy wut yéeféer na la jàpp fa yamut mu faatu ca loolu ñu ko doon woo woo kooku kaafirun yéeféer la te nag lépp lu mu defoon avant muy wàññi ku dem dugg ci diina jële lu baax la mu defoon lu ne yàqu na fax ulaayka yooyu la gaay xabitat yàqu na bàppiku na amaaluhum seen jëf yu baax ya lépp loo xam ne lu baax la woon ñu ko doon def mu na yàqu duñ ci am benn résultat bu leen ci gënal fi dunia wala axira nag fi dunia wala axira amatul lenn lu ñuy teewal ci kanam borom bi xaa ñu tub arrière woowu laa koy la gaa saabu naar ñooy wa sawara hum ñoom xaalidun way béer lañu fii haa ca sawara sa de sunu borom ne inna alladina wér na gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu walladina gaa yi nga xam ne haajaru gàddaay nañu dëkk ba ñu nekk wala réew ma ñu nekk pour dawale seeni pas-pas wa jaahadu ñu jihaad fi sabilillah ci li yëkkati diina yàlla ji pour mu jëm kaw diine am doole nee na ñi mel noonu ulaaka yoole gaay yar juuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yërmaande yàlla wallahu yàlla gafurun ku bari sutura la waaye rahimun ku bari bëri yërmaande la ma ngoog ñëw ci loolu ñuy wax sàngara ak aay yi nga xam ne moo ci wàcc tabaarakallaahu ndax sàngara ci njëlbinu lislaam ca màkka booba yàlla waxutoon ak xaraamam daf ne woon rek wa min samarati naqili wala anabi tattaqisuuna minhu sakaran wa risqan xasana waaye Seyda Omar ak kooku ñuy wax Muaas ibnu Jabal ànd ak ci mbooloo ay sahaaba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko laaj mbiram sàngara ci la aaya bi wàcc ci yasalunaka anil xamri wal maysir baaya jeex yàlla ne bàkkaaran ci njariñang ci ñenn ña di jëfandikoo ñenn ña tere bàyyi ñu demaat ba beneen jëmi jamono ñu ne Abdurahman ibn Awf dafa amoon invitation bu mu def ba mu ko defee ci saxaaba yi ñu dikk mu defal leen teraanga ñuy lekk ka naan naan ya nag bernde yi daf caa bokkoon booba sàngara ñoll moom da caa bokkoon da yenteeg timis jot am ku leen jiite ka leen jiite nag tariqul yaa ayyuhal kaafiruun laa yëpp mu jëlee ko ca da qul yaa ayyuhal kaafiruun a'budu maa ta'buduun antum aabiduuna maa a'budu dindi la yëpp sandi fële wala na ñu nag yéeféeri daal ñoo yam li ngeen di li ngeen gëm la nu gëm loola dox ba agsi ci yonent bi yàlla daldi wàcc aaya ne yaa ayyuha alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara yéen ñi gëm yàlla bu leen julleeti bu leen jege julli fekk ngeen di way def tangalang maanaam yéeg te wàccagu leen ëpp na beneen yoon bi nag kooku ñuy wax Utba ibn Malik dafa defar ñam defar benn invitation itam invité ca sahaaba yi bañ demee ba lekk ba naan ci sàngara sa coow lu jug ñu werante ci ay mbir a ah, ñenn ña jël yaxu gileem yu fa nekkoon ŋaami gileem yu fa nekkoon tabaarakallaahu xaañante ci xaañante yu métti métti ci la Seydina Omar doon wax nag allahuma bayyin lana fil xamri bayanan shafiya mooy aay di ñëw ci suratul maida ci yasalunaka foofa foofay wala innamal xamru koy dana ñëw foofa incha allah waaye daal li muy jàngale fii mooy loolu ñuy wax sàngara dafa xaraam loolu ñuy wax may sarit di carte moom it dafa xaraam waaye xam nga arab yi dañ ko daan séddale ay bant ndal yoo xam ne am na bant boo xam ne mi ngi doon faz bis bu fekkee ba ngeen wuree nga teg ci nag wi bu ñu rendiwaan nag wi dañ koy xaaj juróom-ñaari xaaj am na bant boo xam ne mi ngi doon faz dañ koy teg ci benn xaaj su ko defee bant boobu bu fekkee yow moom nga tebbi benn cir ngay am ci gileem nga walla ca nag wa lu ma tax xàmmee la am na ci bant boo xam ne mi ngi tuddoon taw am bu fekkee bant boobu nga teggi ñaari cër ngay am am na ci bant boo xam ne mu ngi tuddoon raqib bu fekkee moom nga teggi ñetti cër ngay am am na ci bant boo xam ne mi ngi tuddoon xels bu fekkee moom nga teggi ñeenti cër ngay am am na ci bant boo xam ne mi ngi tuddoon naafir soo ko teggee juróom ngay am am na ci bant boo xam ne mi ngi tuddoon musbil soo ko teggee juróom benn ngay am am na boo xam ne mu ngi tuddoon mualla innal mualla ala a mayasiri loolu la sëriñ Babacar si doon junj ca wayam wa wane ne boobu moom boo ko teggee yaay moom juróom-ñaari cër yëpp parce que nar ba ca gën a rëy gën caa foor ëpp ca doole boobu ngay cëru tabaarakallaahu ñoom séddale woon nañ ko nii noonu la daan demee alquran dikk na xeeti carte yooyu yëpp nag dafa xaraam xeeti pémi yeeg xeeti xeeti xeeti xeeti carte yi daal yi xew yëpp dafa xaraam moo tax mu ne yas alunaka daañu la laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak kart lan mooy seen atte xul waxal ne fii himaa nekk na ci jëfandikoo sàngara ak kart nekk na ci jëfandikoo gi ismun bàkkaar kabirum bu mag a mag de naa fi ak njëriñ li naa si ñel nit ñi ndax képp koo xam ne a gañe nga danga kontaan ndax da am nga alal ci lu dul coona carte moom am alal ci lu dul coona loolu lay demee ma kon nga bàyyi ko xel waaye sunu borom nee na wa ismuhuma seen bàkkaar ñoom ñaar mooy bàkkaaru carte la muy yàq ak bàkkaaru sàngara la muy yàq ak baru moo gën a garaaw fuuf min nafihima ki seen njariñ de pare na ca dana ci waxaat beneen yoon mu gën a leer wa yasalunaka daañ la laaj maa laa yunfiquuna ana lan la ñuy financé um na leen su ngeen demee bay financé leen ne leen waxal na leen nañu financé alafwa ndesit mooy lu ëpp seeni soxla suñu jëfandikoo ci mbir mi la ëpp seen soxla waxuñ loo xam ne dem nga jëfandikoo ko nag ba soxlaatoo ko déedéet la ëpp seen aajo la ëpp seen aajo ngay wax la ëpp seen soxla waaw buñ ko fi téye di ko yàq nañ ko joxe keneen ku ko aajoo waaw kay kazalika naka nii mu leerale aayi yu bayuna lay leerale allahu yàllakum ñeel leen al ayaati aayi laallakum ndax la yéen tafak tatafakkarun ngeen mën xalaat bu baax a baax fi dunia wal axira euh, xam nga jàngoon nañu démbu sunu borom naan bu leen lekk alali jirim inna alladina yaakuluuna amwaal alyataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira wala mu nekk ci saar yi war a ñëwi bopp ci saar yi suuratu nisaa yaakaar naa fa la war a nekk loolu jaaxal leen lool tiis lool ba kenn ku ci ne da ngaa mujj ber sa alal ñoom ñu yoroon jirim alal ne alali jirim bi ne balaa mu la yóbbee dugg sawara mu métti woon ci ñoom lool ndax da ngay bëgg a toppatoo sa alal bu fekkee alal ji sàmm alal ji ñuy sàmm la utal ñaari sàmm bu fekkee bitig la da ngay ut ñaari ñu fay jaay bu fekkee tool la da ngay ut ñaari ñu fay dem loolu nag day métti coono boobu métti googu mu métti nag sunu borom yërëm leen ci nag ne ay waa na mbir mi tegew ci yoon na jaar ci yoon wa yasalunaka daañu la laaj anil yataama ci alali jirim nu ñu ci war a taxawee ak nu ñu ci war a jëfandikoo kul ne leen islaaxun ak yéwénal war na ca lahum ñeel leen yéer ñi yor alal ji tam nekk seen loxo ngeen yor kilifte bi jirim yi yéwénal gi seen loxo la ne na jaar yoon xayrun moo gën ngeen bàyyi leen ah ci noonu bañ ko toppatoo wa in tuxaalituhum ndegem jaxase ngeen seen alal ak ñoom seen alal ak alal yi jirim yi ca financement baag yëpp benn sàmm lay doon kuy dem ci bitig ba kenn lay doon benn surgo lay doon ah ñoom baax na noonu la gëne fa ixwaanukum seen ay bokk lañ ci diine yéenay seeni kilifteef yéen a war a yor lépp mu rafet jaar yoon nii la lii lañ leen sant sunu borom ne wallahu yàlla nag mu xam na al mufsida ñi nga xam ne ñooy yàq jël alali jirim jaxase seen alal di ca parafito noos ci tabax ci kër jënd ci yota takk ci soxna jënd ci ay tool parafito daal noos ci noos bu baax a baax sunu borom nee na ñooñu xàmmee naa leen mel musli ci ñi nga xam ne ñooy yéwénal nga xam ne alali jirim bi moom lu ca génn la dañ koy gën a yokk bu xale bi demee ba mag mu kalaf wala ba ràññee ba xàmmee ñu ne ko lii sa alal la ba buñ ko waxee sax da koy bett ndax yaakaaru toon mu bëree noonu sunu borom nee nag ñii yàq xam naa leen di dinaa jëflanteeg ñoom waaye ñii mel na ni dinaa jëflanteeg ñoom ndax walaw sha allahu su neexoon yàlla laanatakum mu xatal mbir mi lool waaw tiisal ko ba mu tiis ne yéen seen alal na taxawe ne alali jirim yi taxawe ne te boobaa dana métti ci yéen lool jaaduwut waaye inna allah naka yàlla azizun aji not ci nguuram la waaye xakimun aji teg mbir famu mu yelloo la aaya ji ñuy waaj wax dañu wax ne mi ngi wàccoon ci benn waay boo xam ne dafa bëggoon seen ndaw ci jamono jaahiliya ñoom ñaar ba ñu tuubee nag gannaaw gàddaay ga a ah, waaja ba léegi ma ngay bëgg xale bu jigéenu yéeféer boobu ba léegi doyalagul ci moom alquran dikk nag ndaw say doyalul ci moom alquran dikk na diggante bi mu mënul ne julit ak yéeféer moom mënuloo sëy Sénégal nag léeg-léeg nga gis fi ah ñoo xam ne dañ naan ay yéeféer lañu ñu bëgg ku leen may doom ñu tuub wala ab yéeféer dem ba mu yàgg tubbi dong ci la ñuy mujj ngir lan alal affaire yi euh, business dong la loolu bari na Sénégal trop soo ko na fi trop loolu moom jërul yàgg sunu borom ne wala tankihu bu leen denc yéen jullit ñi al musrikaat yi yéeféer yu jigéen yi bu leen denc ku ji bu jigéen de jullit du takk jabar yéeféer xataa yumina mbate bu dafa gëm de bala nga kaa takk daal na fekk mu nekk ku gëm de waaye gëm nga na dëggu waaye nga takk ko ni mu delluwaat ko ab tubaab bu jugee ca réew ma la ñëw fii ngeen bëggante a ah ngay naxanteeg moom naxanteeg moom ba takk ko ba mu ne tuub nga takk ko nga delluwaat ak moom fële nga utal la ay këyit ngeen nekk ci la ngeen nekk sax bu tubbiroo la far benn yoon lii musiba la wala am ammatun sunu borom nee na jéebéer jaam bu jigéen muminatun bay aji gëm xayrun moo gën fuuf ngay takk ëpp yool mi musrikatin ci góor goo xam ne yéeféer la ndax fa mu mujj ak yow moo dul baax ndax doom ya ngeen cee am bu ne yéeféer lay doon awaw doom ba ngeen cee am bu doom doomu rek lay doon jaaduwut wala wa waa ajabatkum wala wala ajabatkum doonte kon yéem nañ leen ñoom tubaab yooyu wala yéeféer yu jigéen yooyu yéem nañ leen ci taar yéem néer leen ci alal yéem nañ leen ci askan jaaduwul ngeen leen di takk jaaduwul hmm? wala tunkixu bu leen takk yéen kilifa yi yéen paa yi yéen laay wax yéen itam bu tubaab yi jugee fële nekk ay yéeféer gis seen doomi jullit yu jigéen yii ñu bëgg ko bu leen leen jël may la leen donte tubaab bi jóor na la alal judul jeex donte tubaab bi jóor na la alal judul jeex jóor ko sa doom loolu jaaduwul ndax ñoom itam da ngay dégg ñu ne ñoom dañu ñëw tuub suñ tuubee yóbbu sa doom ca réew ma tubbiloo ko delluwaat ca la leen neex jaaduwul wala tunkixu bu leen may al musrikiina yu góor yi bu leen leen may jullit yu jigéen yi xataa yuminu lu dul ñoom yéeféer yi dañoo gëm wala abdun nga may ko jaam muminun bay aji gëm xayrun moo gën fuuf nga may ko min musrikin ci ab yéeféer boo xam ne gëmul walaw ajabakum donte kon yéeféer bi góor boobu yéem na la ci alal yéem na la ci taar yéem na la yéem na la yaa xam ndax baaxul ulaayka yooyu la gaay daal mooy ñooñu nga xam ne ay bokkaalekatu yàlla lañu ñoom yadduuna dañuy woo nit ñi ilan naari jëma leen sawara mooy jëf yi ñuy jëf ko toppee nga may ko sa doom ah tabarakallahu luñ jur lu ne sawara lay teeri fa lay jëm kon jaaduwul dégg nga wallahu yàlla yadoo day woote ilal jannati jëm aljana ulaaka yadoona ila naar wallahu yàlla yadoo day woote di ko jaarale ci làmmiñ ay yenentaam ak ñu fi wutu yenent yi ilal jannati wal maxfira ak njéggal bi izni yi ci nammeelam wayu bayn day leeral ayaati ay ayaam dinaa si ñeel nit ñi laallahum ndax la ñoom yatazakkaruna ñu waaru yàlla daal leeral na lii ba mu leer naññ kon nit ñi nañu ànd ak sago ci seen nu ñuy uti alal tabarakallahu ñu ñëwaat ci yeneen aaya joo xam ne ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ñuy wax abu dahda moo laajte laaj bi mooy ñoom dañu ñëw gis yahud yi seen soxna yi buñ amaan mbërëg dootuñ bokk ak ñoom fu ñuy fanaan duñ bokk ñoom lekk sekkatuñu ñoom dara daal jaahiya roy leen ci loola nasaraan moom bu seen soxna yi amaan mbërëg daawuñ tàqale ko ñoom mbërëg mi moom du leen teree def dara maam mu di ñaay rek lañ fa nekkee alquran dikk di leeral mbiru mbërëg su dalee soxna naka la war a doxalee ak borom këram alquran nee na loolu leer ba mel ni bëccëg dégg nga nee na wa yasalunaka daañu lan laaj yow yonent bi anil mahidi ci mbërëg xul waxal ne woo mbërëg de suñ la ko laajatee neel adan sobe la wala place ba muy génnee daal jamono bi muy génn ëpp naa jëfandikoo adan mooy deret la ji génn jamono bu dalee jigéen ñi nag fa faatazilu na ngeen beru an nisaa jigéen ñi mooy beru ñàkk a laal fil mahidi ci jamono mbërëg mun ngeen a bokk ak ñoom lu ñuy lekk bokk ak ñoom fi ñuy tëdd bokk ak ñoom bokk ak ñoom bokk ak ñoom waaye jamono boo xamee ne nag ci jamono yu mbërëg booba laal ko ci xaraam na waaye boo ko ci laalee am na xadis yu ne da nga am sarax boo génne pour def ko yàlla jéggal la sa bàkkaar boobu ndax jote nga ak moom ci jamonoy xayd ok ñu bàyyi xel loolu fil maxiidi jamono bu ñu amee mbërëg itam wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege gu laal jege sëy déedéet jaaduwul ak loo ko bëgg-bëgg ak loo ko nopp-nopp sunu borom ne naan di caag sa sago hatta yatuhurna dem ba ñu laab mooy dem ba ñu set ca mbërëg ma mbërëg ma set ñu sangu ca ngaayal farata waaw doonte sa soxna la nga yor ñetti soxna wala ñeenti soxna kenn ku ci am mbërëg su amee mbërëg gi da nga kaa war a jox ak ay ak ayam waaw kay soo fa demee nag moom bu ko neexee am na droit ne la ah waa bu la neexee nga fanaani feneen loolu moom sera may na ko ko loolu jàngale nañ ko fa ida tatahar na ndegam dem nañ ba set ñoom jigéen ñi fatuhunna na ngeen leen dikke comme na ngeen laan leen dikke avant ñuy am mbërëg min xaysu amarakumullah comme ne leen ko sunu borom santaane bu leen jëlgati nii mu tëralee doxe leen noona kon nga gis ne fii ñu toll moom day jàngale lenn ci atte sharia yi tabaarakallaahu nga xam ne day jëm ci mbiram jigéen inna allaha naka yàlla yuhibbu bëgg na dana fay biin way tuubi mooy ñi nga xam ne buñ defee njuumte yëg nañu def nañ njuumte daal di arrière joteeg ndaw si ci jamonoy mbërëg daal di tuub arrière ah suñu borom jéggal la rek wa yuhibbu bëgg na boobu xale moom yàlla al mutatahirin jigéen ñi nga xam ne dañuy laab ci mbërëg mooy bu seen mbërëg daggee ñu sangu sangal farata nee na yàlla nee na man bëgg naa ñii kat seen soxna yi nag ay tool lañu ci misaal tool nag soo koy defar di ca ji danga kaa war a ji jiyee ko ni ñu ko war a jiyee fekk li waral loolu mooy arab yi bu njëkk ba am na ñoo xam ne bu ñu daan sëyeeg seen soxna yi seen demeekaay duus yi la ñuy sëyeeg ñoom fi ñuy kamina foofu la ñuy sëyeeg ñoom loolu nag jaaduwul alquran dikk di tere loola ne loolu moom bu mu fi amati ji soo koy def da nga koy jiyee fa muy saxee waaye dem ba fudul sax nga di fa jiyee wattuwul maar day taali sunu borom ne nisaaukum seen soxna yii xar sun komop tool la ci yéen tool nag nu la neex nga cay demee waaye itam am na it nuñ ko war a jiyee ndax xam nga tool boo demee ba jamonoom jot da nga koy ruuj bu fekkee mbayum nawet la mbanga nga labur yi ko dagg gajj yi def nangam ak nangam ak ya caaju yëpp pour lan boo jiyee mu baax waaye bu fekkee defuloo ci dara a ah, boo ko jiyee watul mën mën na mel ni maar day taali de kon xarsul lakum kom seeni tool lañu ndax fa ngeen di amee njaboot kon fa faatu dikke leen xarsakum seen tool booba mooy su ngeen dee joteeg soxna yi jote leen ñoom ci kanam waaye bu leen joteeg ñoom ci ginnaaw jaaduwul su ngeen dee joteeg ñoom na an ne si itam nu leen neexee nag su neexee mu toog wala mu taxaw walla wala waaye daal fa ngay joteeg moom bu mu bokk ak buntu gannaaw bi ci gàttal waqaddimu na ngeen jiital ba tey li anfusikum ñeel seen bopp. sunu booram nee na soo demee bay bëgg a joteeg moom am na limaay goo war a def aw kay mooy lan allahuma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqna yonent bi nee na ku wax lii boo joteeg sa soxna tabaarakallaahu shaytaane du ci am benn wàll waaye nit ñi nag moom comme jànguñu diine yittewuñu ko xamuñu ko ah yàlla yàlla suturaal ñu moo tax li xew ci njaboot yi di ci xew rek kenn musul dégg lool wa qaddimu li anfusikum tudd yàlla gaag ya ca tegoog yéeg a tegoog bëri na lu ci tiir yi wax yoo xam ne xëy na jot na ko dul maye pour ñu dugg ci mu ne sa ci wax lu bëri ci wàllu woowu ci yoo xam ne war na fa xew jamono boo xamee ne yéen a ngi am rapport wattaqullaha ragal leen yàlla ci lii mu leen sant su ngeen day jotee soxna yi waalamu ngeen yëg ne annakum moom yàlla annakum naka yéen ñii mulaaku way daje ngeen ak yàlla mu fay leen de kon lim santaane def leen ko wa bashir bégalal al way gëm ñi bégal leen ci aljana aaya ji ñuy waaj wax nee ñu mi ngi wàccoon ci Abdullah ibnu Rawaxa diggante ma koo xam ne giñoon na ca wane na daal du def lenn ci moom ci lu baax am ñu ne déedéet mi ngi wàccoon ci Sina Abubakar ba mu giñee ci jaamam boobu ñuy wax mistax ci hadisul ifk wane ne mënatu def lenn ci moom lu baax waaye ngiñ moom boo ko defee ne billahi wallahi wa tallahi duma ma ko jëflanteeg moom wala duma def nangam sama digganteek diw wala duma ci wax diw ak diw jote nga xam ne yow boo ci waxee ñu juboo nga ne déedéet billaahi duma ci wax wala diw dootuma ko defale ci nangam giñ ko ñu wax nga ne xas naa ko giñ déedéet sharia day wax ne demal kafaara sa ngiñ loolu soo ko kafaara la nga waxoon te sa ngiñ li gàllankooroon la nga dem defi ko ndax li bañ mooy nga jël ngiñ ji teg ko ci sa kanam ngir bañ a def lu baax loola loolu moo am ci mbir mi sunu borom ak di tere dégg de moo tax mu ne wala tajaalu bu leen def allah yàlla ci seen nji ñi ordatan mbir moom mu nekk gàllankoor lu leen di tere def lu baax li ay maanikum ñeel seen nji ñi su ne nii da ngeen a xasoon naa ko waat man daal xasoon naa ko waat ci yàlla daal dootuma arriérati an tabarru pour ngeen ñàkk baax baaxee nit ñi ñàkk a mbokk ñàkk def nangam wata taxu ngeen ragal ngeen teet jaaduwul wa tuslihu ak ngeen ñàkk yéwénal bay na naa si ci diggante nit ñi suñ ne nii ngeen a giñoon naa ko loolu amul solo demal kafaara ngiñ ñi rek te ñëw def lee ndax lële la cay jugee moo ëpp yool fuuf wallahu yàlla samiun aji dégg la waaye alimun aji xam la li ngeen fi nekkee sunu borom nag di wax ne ngiñ yooyu ngeen di giñ pour mu tere leen a def lu baax yàlla ngiñ li bu fekkee da ngeen kaa wax ni mu nekk sabqu lisaan maanaam da nga kaa wax ci njuumte waaye jubluwoo ko ci woon dëgg-dëgg kooku moom bàkkaar du ci am bàkkaar du ci am loolu la bëgg a wax dégg la laa yuaakisukum du leen jàppee allahu yàlla du leen jàppee bàkkaar billah wi ci ay niin fii ay maanikum seen ngiñ yi ngiñ loo xam ne da nga koy giñ te ba nga koy giñ da ngaa juum sa làmmiñ moo ko wax waaye fasoo ko ci sa xol yàlla du leen ci bindal benn bàkkaar waa yàlla lim leen di bindal bàkkaar mooy ngiñ loo xam ne ba nga koy giñ yaa ko fas ci sa xol ne du ma defati nangam wala du ma waxati nangam ngiñ loolu ci la yàlla di bindaate bàkkaar bu fekkee wax nga ko wala kafaara woo ko tabarakallahu walakin waaye yàlla yu aakizukum dana leen jàppee bi maa kasabat ci la fàggu na ko xulubukum seen xol yi mooy ba ngay giñ la nga tibbee ci sa xol te gëm ko su ay bàkkaar waree kenn loola lay bàkkaar di war bu ca kafaara waree boo ko defulee tabaarakallah wallahu yàlla xafurun ku bari sutura la waaye rahimun wala xalimun ko ànd ak sagoom la maanaa du jekki-jekki rek ngeen def dara mu jël ci dal ci seen kaw fokk bis bu set ñu ngi fi tooñ waaye terewul rek mi ngi ne tekk rek ànd ak sagoom ci lu na nag léegi li muy jàngale foofu mooy loolu ñuy wax al ila toog ba mu yàgg daal ginne sa soxna si fii ak ñeenti weer doo fi joteeg moom soo fi bëggee joteeg moom te ñeenti weer yi matul da ngay kafaara bu ñeenti weer yi matee nag ba pare ah nangoo ji joteeg moom yoon da ngay tas de mu uti beneen jëkkër yow nga uti beneen soxna lii am na mooy la nga jàngoon ci téere fiqh yi kon leer na atte yi fay lay jàngale fii mu leer nañ lillazina ñeel na gaa yi nga xam ne yu'luuna ñu ngee giñ min nisaa'ihim ci seen soxna yi giñ ne sa soxna danga nga am ñeenti weer doo ko laal war na ci ñoom tarabbusu arbaati ashurin xaaradiku ñeenti weer giñ ne feeg ñeenti weer yi doo ko fi laal soo ko fi bëggee laalaat te ñeenti weer yi matul danga nga kafaara dégg nga ko bu baax bu fekkee ñeenti weer yi nag mat na te nanguwoo kaa laal a ah, sharia day wax nañ tas sëy bi na uti beneen jëkkër yow nga uti beneen soxna jeex na nee na fayin faa wu ndegem dellu nañu nag avant dat ba di jeex wala gannaaw dat ba ah baax na fa inna allaha naka yàlla moom xafurun ku bëri sutura lool waaye rahimun ku bëri yërmande la noonu la léegi nag ñeenti weer yi jeex na nanguwoo dellu nañu ko fase way na adamu ndegem dogu nañu nag atalaaka pase pour yóbbu nañ ko ci yoon pour ñu fase ko pour ñu fase ko a ah, baax na fa inna allah naka yàlla moom samiun aji dégg la li ngeen di wax waaye alimu nit aji xam la ndax dogu ngeen wala dogu leen gannaaw ñeenti weer yooyu léegi nag bu fekkee fase da caa am jigéen boobu bala ñu kaa takkaat foog dana xaar ñetti weex-weex mooy day gis mbërëg set gisaat set gisaat set waaw kay boobaa nag a ah, ku koy takk door koy takk waaye nga bàyyi xel nag bu fekkee ne dañ ko fase fase ba in ba tey jëkkër ji ko bëggoon bokkut ak rajo yi jëkkër ji ko bëggoon bëggaat ko mu nekk di ay daw am na droit takkaat ko saa muy xaar mbërëg mi di jeex de déedéet bokk te bokkut ak fay di itam kooku it nga bàyyi ko ci xel ci àtte boobu de wal mu wal mutallaqaatu war na ci jigéen ñi ñu fase ñi yatarabas na nañu xaarandiku bi anfusihin na ci seen bopp balaa ñuy utaat beneen borom kër nañu xaarandiku salaasata quru'in ñetti weex-weex mooy ñetti laab-laab am ñu ko jàppee laab am ñu ko jàppee ne mooy mbërëg xaar ñetti mbërëg wala nañu xaar ñetti weexu yax ba set ko gis ko daal ñetti laab-laab nee na walaa yexilu dagan lahun na ñeel leen ñoom jigéen ñooñu nga xam ne dañ leen a fase an yak an yaktum na ñuy nëbbu maa xalaqa la yàlla bind na ko fii arxaamihinna ci seen ruxum yi la yàlla bind bu fekkee jigéen bu ëmb la xam nga moom boo ko fasee fii ak indiwul rek i jeexagul bu fekkee jigéen bu ëmbul la nag moom itam mbërëg ma muy gis ak diggante yam koy gisee ak nam koy gisee naka leeral lépp na leer bu ci nëbbu dara bu mu ci nëbbu dara mhm. in kunna ndegam nekk na ñoom jigéen ña yuminu di gëm billahi ci yàlla wal yawmil axir ak bis bu mujj ba nañu ko rafetal bu baax a baax bu fekkee ne jigéen ñooñu seen mbërëg jeex na seen borom kër yi bëggaat leen ñu bëggantewaat ndaw sa doyalul waa ji doyalul yéen parents yi nag bu leen taxaw di jaay dangeeral ak a wowle ak ñëññental moo xam ne da ngeen ko ci jublu pour bàyyi naan dana xam ne man la fi fekk ak dana xam ne maa ko ëpp fayda li may jaay dinaa ko jënd ak waaw li lay jaay da nga ko jënd waaye itam ñoom ñaar mën nañoo jaayante loo xam ne yow doo ko yëg te boobaa musiba day am hmm? kon yooyu yu mat a bàyyi bu baax sunu borom ne wa buulatuhunna seen borom kër yooyu a xàkku ñoo gën a yeyoo bi raddihinna ci delloo waat soxna ci ñu delloo si waat soxna ya fi zalika ci jamono yi xaarale ko jooju in araadu ndegam bëgg nañu islaaxan ak yéwénal seen digganteeg soxna ya kon ñoom daal war nañ leen mën a joxaat ñu delloo si waat soxna ya ci période boobule nga xam ne jalt jalt ji daal dem na ba jeex tàkk dégg nga ma ngoog nee na wala na ñeel na jigéen ñi ci seen jëkkër yi mislu lu comme la nga xamee ne mislu ladi comme la nga xamee ne mislu ladi comme la nga xamee ne ñeel na leen ñoom jëkkër yi alayhinna ci soxna yi ci ay xaq bil maaruf ci njëkk nga kon droit bi góor ñi am ci seeni soxna droit boobu la soxna yi am ci seeni borom kër bil maaruf ci ànd ndoor bu rafet bañ a lor waaw bil maaruf góor gi jigéen yi ni mu waree togg ni waree bale mooñ liggéey kër yi waaye itam góor gi it la ko waree mu uti dépasse ko daay ak yi ci des ak yi des yëpp moom la war loolu nga xam ko ci bil maaruf waaye wala rijaali ñeen la góor ñi nag alayhin na ci kaw jigéen ñi darajatun beneen daraja boo xam ne ëppal nañ ko am nañ ko boo xam ne jigéen ñi amuñ ko ndax ñoom ñoo joxe can ñoo joxe dépasse moo tax yàlla fay leen fay daraja waaye fay leen fayu jëf la góor gi bu saax doon wax xam nga jigéen ñi ñaare bu ñu toggee mbaa ñuy séddale ay ñam toujours ñoom ñoo nekkoon ca waañ wa di sonn di def lu ne waaye tabaarakallaahu ñoom bala ñoo def dara rek bala ñoo def dara rek foog rek góor ñi la ñuy jox ñu lekk ba pare ñu def la ñuy def ba pare door di jox seen bopp kon nga gis ne bu fekkoon ne payu jëf dong la ñoom la yàlla di njëkk a jox waaye gis nga da leen a fay fayu daraja moo tax dégg de wallahu yàlla aziizun aji not ci nguuram la xakimun aji te ngir fa mu yelloo la atalaq xam nga bu njëkk ba nit da daan jigéen fase ko mbërë muy bëgg a jeex mu jëlaat fase waat diggale fa mat junni yoon sax ñi na ne ko def alquran nag xam ne ñi moom dañuy fooye fase xamuñu lan mooy fase comme ni nga xamee tey sénégalais yi noonu lañ koy fooye ngir ñàkk kaa xam nu neexee waay mu jëfandikoo ko nu neexee waay mu defee ko jàngu ko yittewu ko xamu ko jéemu ko sax fu ñu laajee ba boo dof dof loo yow mi gëstu ci wàllu diine bis bu set ñu defar loolu la sëy boo xam ne watul ci kaw njaaloo lay tegee te lu waral loolu mooy suñ dikkee duñ la wax dëgg-dëgg mbir mi day am tuuti luñ la compal ci mbir ma te mbir mañ lay compal dañuy dem ci benn borom xam-xam borom xam-xam bi ni leen fase mi dagg na su ngeen waxee woon ni waxee woon nii ba dee mën ngeen kaa jëli borom xam-xam di ko laaj bu nan ngeen waxee gis nga ka leen waxoon suñu waxee woon nii waxee nii gis nga jooju jooju wax la ñuy jël wax jooju la ñuy jël kon nag parce que moomu nga xam ne moo nekkoon ci jamono ba gaay yi di ko foye ba léegi gaay yaa ngi kaa foye sunu borom ne at-talaaqu parce marrataani ñaari yoon dong la mën a amee soo ko fasee ñaari yoon bu ñettee baada saw ji rek fase nga ko ñaari yoon téye ko fa imsaakun war na nga téye ko téye bu jekk gannaaw boo ko faylee bu rafet bi maarufin ci njekk téye xam ne doo ko sotee ngir lor ak xoñoñal ko ak métital ko mooy lan doo ko jox dépasse doo ko woddu sàggane ko bam neex la te woo ci lu dul kii daal daf may fonto daf ma doon nax daal lor ko rek nga ci jublu loolu jaaduwul sariya da kay bañ aw tasriix wala gannaaw boo ko fase ñaari fase ba pare ba idda ji yaxta jëloo ko nga bàyyi ko bàyyi goo xam ne lépp nag mu ngi amee bi ahsan ci ak njëkk ak ak rafetal walla yaxillu du dagan lakum ñeel leen yéen borom kër yi an taaxudu ngeen jël mimma na ci lépp loo xam ne joxoon ngeen leen ko ci can soy an dara bu ngeen leen fase kon jigéen ji fase nga ko muy dem dama ne can ganga ka joxoon bu ci jëlaat dara bàyyee ko lépp te yàlla tax ah illaan yaqafa lu dul bu ñoom ñaar dañoo ragal allah yuqimaa ñu ñàkk a taxaw xududallahi ci frontière yàlla yi maanaam ni yàlla diglee góor gi fasul yéene def ko jigéen gi itam ma nga yàq dara ji lu ne ma nga koy waxal lu ne ma nga koy sosal lu ne ma nga koy duural kooku itam nga xam ne li yàlla santaane mooy nañu war a mel melu ko kon bu boobaa itam tabarakallahu ah dagan na mu ne ah man la ma ko joxoon dama koy jël allah yuqimaa xududallah waaw kay nee na fa in xiftum dangam ragal ngeen allah yuqimaa nañ ñoom ñaar daal du ñu taxawal xududallahi frontière yàlla ni yàlla ni waxee ne couple bu ne noon la war a doxee ci ànd bu rafet ñoom gis ngeen ne daal ànd boobu mu mënatuñu kaa def ci ñoom ñaar kon suñ leen yóbboo ci yoon yoon day wax ndaw si jëlal lëf nga jox ko waa ji tam bàyyi la nga dem ndax nga dem ci jàmm mu dem ci jàmm lii daga na ñi ngi ànd ñoom ñaar te ànd bi neexatul te jëkkër ji ne du ko bàyyi mënu ko muñ kee toujours ci xuloo xeex ak jàmmaaloo rek la ñuy dëkk fu ne enragé nañ fa ñu të kon yoon moom bu ko jotee wax ne ndaw si joxel nangam waa ji bàyyi la nga dem dégg la kon falaa junaaha dit bàkkaar alayhima di leen war ñoom ñaar fii maftadat ca la nga xam ne jotoona bihi ca loola moom ndaw si ci alal mu joxe ko pour lan waa ji bàyyi ko mu dem mooy loolu ñuy wax sumeeku rek tilka atte yi ñuy tudd ci sëy xududullahi mooy frontière yàlla yi falaa taataduha bu leen ko jëlgati dem ngeen mënutu leen nekk joxel waaye nga ne su ma joxee du ma jël téye ko fi ngir xoñoñal ko yaa ngi jëlgati ah, ah, ah, frontière yàlla yi atte yaa ngi koy jëlgati yàlla santaane wu lool de man yataadda ku jëlgati nag xududallahi frontière yàlla yi fi yàlla yem lu yem loo fa fa ulaayka yelo gaay hum ñoom avalimuun ñooy way tooñi de ma nee na xam nga soxna si danga kaa fase ñaari yoon fasewaat ko beneen fase gannaaw ñaareel ba kon kooku baada zaw ji da cee am wàll baada zaw ji nag bokkut ak baaro yëgoo waaw kay mooy day utiwaat beneen jëkkër su utee beneen jëkkër jëkkër ji joteeg moom mu kolaas ko ndaw si kolaas ko ñu tàqale ko mu ñëwaat ci jëkkër ji lool dagan na waaw kay waaye li ñuy bañ daal ñaari góor yi yëgoo ah pour dem rek takk ko pour daganal ko kële kooku moom mu ne sharia nangu ko sunu borom nee na fa in tallaqaha ndegam pase waat na ko beneen pase gannaaw ñaari pase yu njëkk ya fala du dagan lahu ñeel jëkkër ja min baadu gannaaw pasem ñetteel bii du daganaat ci jëkkër jooju xatta tan kaa lu dul daf kaa takk zawjan jëkkër xayrahu bu bokkut ak jëkkër ju njëkk ja keneen takkaat na ko ba laal ko jote goo xam ne jote gu wér la donte ndaw si moo ti jëkkër ja fexe ba waaji takk ko mu tas loolu boobaa na dagal mu delluwaat ci jëkkër ju njëkk ji li ñuy ñaari góor ñi teg seen i diil loolu moom du mu nekk nee na fa in tallaqaha ndegam jëkkëru ji fasewaat na ko nag fase na ko fala junaaha dit bàkkaar alayhima di war ci jëkkër ju njëkk ji ak soxna si an yataraaja ñu dellanti ko waat dellowaat buumu sëy gannaaw ba idda ja jeexee ci jëkkëri ñaareel ja waaye ci sart ba la ñu koy dellowaat jëkkër ju njëkk ji mooy day fekk wóor na leen ne ñoom suñu demee na yàlla bëgg ci àndin bu rafet daañu ko jéem a àndee waaye bu fekkee buñ demee nañ meloon rek la ñuy mel ah kooku jaadul ñu fay delluwaat ndax ci la ñu jëm te loolu lañ koy bañ inzan naa ndegam njoortu nañu an yuqiima taxawale xududallahi farañceer yàlla yi mooy atte yàlla day daytale yàlla yi ñu taxawal ko watil ka lii ñu fi tudd daal xududullahi mooy farañceer yàlla mooy atte yi sunu borom tudd nii lañ war a nekkee ci way dencante yi te yubayyinuha dana ka leeral moom yàlla atte yooyu li qawmin ñeen nit ñi nga xam ne yaalamuuna daañu xam xamuk setantal xam ne sëy moom problème bu ci am bu ne tabaarakallahu boo déglee njàngale yàlla jaarale ko ci làmmi jënanti bi lépp dana leer ba ko fi nit ñi bàyyee nag di déglu leneen ak seet leneen ak gis leneen cool-cool yi am yëpp ci la am sunu borom nee na wa ida talaqtum ndegam fase ngeen an nisaa jigéen ñi fa balaax na ñu jege jot na seen diggu mbërëg maanaa jege jot seen jeexiti diggu mbërëg fa am amsikuhunna fayli leen leen bi maarufin ci njëkk jigéen na nga ko fase fasem fayli muy daw nekk ci sa biir kër taal sa courant bi jëfandikoo sa ndox mi tëdd ci sa lal bi yëpp waaye feeg mbërëg mi ñettele mi jeexagul rek su la neexee yow mun nga kaa fayli mooy boobaa famsikuhunna bi maarufin waaye bu fekkee bàyyi nga ba mbërëg mi jeex ndax doyal nga ci moom aw sarrixuhunna wala nga ngeen boyal leen yeewi leen leen yëpp nag mi ngi amee bi maarufin kon ànd bi na rafet tàggoo bi na rafet wa man yafaal ku def daalika lii fa xasalama dëgg-dëgg tooñ ne nafsahu boppam waaw waaw déedéet moo tax dafa mel ni wala na bu leen leen téye di leen fayli diraaran ngir jublu ci xoñoñal ak métital ak lor leen kese ngir di fayanteeg ñoom ci ñàkk ko solo ka métital tekk ay tolof-tolof kooku jaaduwul góor gu koy def léeg-léeg nga gis góor ñu koy def waaye góor ñi koy def ñëpp ne leen wóor ni taata du pour nañu jël gëti rek gën a yàggal ay daja gën ko faa téye téye bu yàgg jeexal fa kar yéram yëpp ko lañ ci jublu suñu borom man zalika lii téye jigéen fase ko fasem fayli saa bu mbërëm mu dee bëgg a jeex nga fayli ko te yaa ngi ci jublu pour lool ko kese kese kese kooko xaw ma kan fa waaye faqat zalama tooñ na nafsahu boppam mooy bu ci ay duma waree danañ ko ci def de te nag kuy def lii dafa mel ni da ngay fonto yàlla ndax yàlla leeral na mbiram sëy ne nii lay doxee yow nga ne aay yi ci yàlla jàngalee ko bi yonentam doo ko jël jëfandikoo ko xanaa di fooye sunu borom ne loolu jaaduwul wala tattaqisu bu leen jàpp ayatillahi a yàlla yu xusaan mbir moom mu nekk lu ngeen di fowe ak di ko caaxaane a jaaduwut nee na waskuru fàttaliku leen niamatallahi xéewalu yàlla yi aleykum ci yéen mooy boole gim leen boole ci lislaam fàttaliku leen ko xéewali lislaam wax naa la ko sànq ne xéewali lislaam dara ëpp ko ci doole xéewali lislaam dara ko ci doole kooku nag lu mat a bàyyi xel la dégg wattaqullaha ragal leen yàlla waalamu xam leen anna allaha naka yàlla alimun aji xam bi kulli shay'in mu ñëwaat ci fas mi ne wa ida tallaqtum ndegam fasa ngeen annisaa jigéen ñi fa balax na ñu jegee jëte ajalahunna seen digu mbërëk mooy seen mbërëg mi ngi dem ba jeex na fala taaduluhunna bu leen leen gàllankoor mooy seen mbërëg yi bu demee ba jeex a ji nag kilifa yi lay wax ak parents yi lay wax ak wala goro yi lay waxanteeg fala taaduluhunna bu leen leen gàllankoor an yankeex na ba ñuy sëyloo waat aswaajahunna ba ñu sëyi ji aswaajahunna seen borom kër yi bu fekkee ne itam mbërëg ma jeex na ndaw si bëggaat na waa ji bëggaat na yow goro bi wala yow parents yi wala yéen parant yi yéen laay wax bu leen wax ne kii daf may fontoo daf maa yeb bu mu yaakaar ne sama njaboot gi amu fu ma ko dugal nangam nangam di jaay dangiral motu ko ida tara daw ndegam ñoom ñaar di jigéen ji ak borom kër gi d'accord nañu baynahum seen diggante pour dellawaat sëy ba bil maaruf ci njekk tere gi mu leen tere gàllankoor gi ne bu leen leen gàllankoor yéen parents yu yuwaadu bihi la leen di waare da ci waare man kaana képp koo xam ne nekk na yumin di gëm billaahi ci yàlla wala yawmil aaxiri ak bis bu mujj ba yàlla mi ngi leen di waar ci lii pour ngeen bàyyiwaat ko xel bu baax a baax nee na zalikum bàyyi gàllankoor googu daal aska moo gën sell lakum ñeel leen tawaadaxar moo gën a laab waaw ci la tuuma di gën setee kat ndax yow boo ko gàllankooree fii ñoom mën nañu gisante ca whatsapp ba di wax di yóbbantey photo ak a joxante rendez-vous fu ne mën nañu daje facebook ba mën nañuy daje mën nañuy daje mën nañuy daje di online nag yi kenn xamul yow nag te yëguloo ci dara yow léegi foo koy waxee ji hmm? nga taxaw ne du fi amee ñi mooyaat yàlla loolu kenn mësa ngaa gis wallahu yàlla yaalamu xam na li nga xam ne seen ak yéwénal ci la ne te wa antum yéen laa taalamuuna xamu leen dara ci mbir mi léegi nag su ngeen fasee jigéen da yenteeg mu am doom doom ja du tere jigéen ja dana ka nàmpal waaw kay su ngeen ka takkee itam nàmpa ko moom daf ko war a nàmpal moom nga aaya ji wal waalidaatu yurdi'na ku demee ni Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Sarif lenn ci fuqahaaw yi dañuy wax ne jigéen bu fekkee dafa nekk borom daraja ah su ko neexee ne du ma nàmpal na sama borom kër fay ku nàmpal xale bi seex nag ne ku am daraja ku ñàkk daraja yépp ci yam wal waalidaatu daal la ñu wax gis nga jumlatul xabariya boobu dafa yor maanaa amar wal waalidaatu yurdi'na nañu nàmpal nañu nàmpal mooy nàmpal leen rek maanaa xam nga jumlatul xabariya yurdi'na waaye da yor maanaa santaane nampal leen nampal leen awlaadahunna seen njaboot yi seen doom yi yi ni ñaari at kaamile ni yeewee ma sëkk sëkk sëkk sëkk at yi ma sëkk waaye gis nga santaane bii mu ko santaane nekkul santaane boo xam ne pour ñaari at yi nekkul loo xam ne boo ko defulee doo am bàkkaar bu la neexee ah afa muy am ñaari at nga feral ko bu la neexee ñàkk nàmp ñaari at gi kay kooku bu fekkee xale bi mën naa lekk ñam ak yooyu yee ci tegu ñaari at gi du force bi waaw du force bi liman ñeel képp koo xam ne bëgg na an yutimma mu matal radaa radaa nampal googu euh, kon boobaa mën na ko nampal ñaari at nee waalal mawludi war na ci baay bi lahu ñeel ko risquhunna mooy dépaasu jur yi nàmpal yaa yor sa na muy nàmpal sa doom ngeen tàqalikoo jamono bi ngeen tàqalikoo fekk dafa yor doom ji nàmp kooku ndaw soosu nga ko te muy nampal sa doom la muy dunde yàq ka war a jox wa kiswatuhunna ak seen koddaay it yéena leen ko war a jox lépp nag bil maaruf ci njekk mooy dan nga koy defee na nga ko mënee sa doole daal borom doole nga nga def ko def ni borom doole ku néew doole nga def lu tollook la nga am rek ndax laa tukallafu deful togg nafsun benn bakkan illa wusaha lu dul lëm ndax bu ma ne woon ñëpp ay tollal lañ ci joxe kon ki néew doole man dinaa ko gaañ te yow loolu loolu la loolu borom di bañ mhm, loolu lay bañ dégg nga ko bu baax dégg nga laa tudar laa tudara bu mu waa jur wu jigéen mooy yaaja bu mu rot bi wala di haa doom ji naan man duma ma ko nampal comme daal tàggale ko nañu utal ko la nampalal sa doom tabaarakallaahu comme kay yow jeex na jeex na fi nga jaar ak man da nga xam ne mën nga koy sekkat déet yow ndaw si santuñ la loolu de tuug la loolu yi santuñ la loolu de dégg nga de aha santuñu loolu aha wala bu mu lor ba tey mawludun lahu waajur wi ñu jural bu mu lor it bi waladihi ca doomam moom am na lu mu joxe pour ñu nampalal ko doomam jox ko yaay ji di nga ko fay dépasse ak yooy mu ne comme daal dañoo tàggali ko yóbbu na doom bi man sama yoon nekku ci dafa may jaay dëgër bopp dafay jaay woowle dana xam ne man la ko sekka motu ko waalal waarisi war na aji doon ji mooy xale bi war na xale bi nga xam ne tey tey bu fi paa bi moo ko war a donn bu fekkee moom am na alaleen doona loo xam ne mi ngi fi nekkaale moomaale ko da ba dañuy jël ci alal jooja jox yaay ji mu ci lekk di ci nàmpal doomam dagan na dagan na di mitu zalika comme la waroon bàyyi ba rek ca koddaay yaag nee na fay na araada ndegam namu nañu ñoom ñaari parents yi fi saalan feral seen doom avant muy am ñaari at en toradin ci d'accord mooy yaay ji d'accord na ci baay bi d'accord ci min huma ci ñoom ñaar wata saawurin ak diisoo goo xam ne am na ci seen diggante xam na ñàkk namp dal mënut a lor xale bi ndax xale bi nin na ñam fala junaaha dit bakkaar alayhima di leen war ci feral googu ñu feral seen doom wa in aratum de ngeen namu ngeen nag yéen waajur yi yéen parents yi an tastardiu ngeen sakkoo nampul awlaadakum seen ay doom maanaa bu leen neexee comme comme tàggoo nga ak xale bi nga ne ka man du yóbbaale sama doom ndax jikko ji nga yor ak bëggu mu yoro sa nangam nangam ak wax wax wax wax ba mu teer kon dagan na nga ne sa doom dama koy jël yóbbu ko feneen ñu nàmpalal ma ko dagan na dégg ah voilà junaadit baka aleykum di leen war ila sallamtum ndegem jébbal ngeen maa aataytum la nga xam ne jox ngeen leen ko euh, dégg nga min bil maaruf ci njekk mooy la ca war daal wattaqullaha raga leen yàlla waalamu xam leen ne anna allaha yàlla naka yàlla basirun ku gis la bi ma taamaluuna ci li ngeen di jëfandikoo lépp dana leer léegi nag fase leeral na ko faatu moo ci tegu xam nga ba nga commencé ci mbiram takk soxna ñëw ba ci biir fase ak yim ci leeral ci ay atte yëpp nga dégg ko mu leer ci yow mu ñëw na tey na tàqali ko mën naa am ci lu fase waaye day am walladina gaa yi nga xam ne yu too faw na daañu dee wala dee nañu min kum ci yéen wa yazaruna ñu wàcc azwaajan ay soxna faatu nañ bàyyi fi ay soxna soxna yooya yatarabas na nañu xaarandiku bi na ci seen bopp nañu xaar iddawu ba arbaata ashurin ñeenti weer wa asran ak fukki fan nañu toog iddawu ñeenti weer ak fukki fan waaw kay waaw toog foofa rek waaye nag loolu day fekk ëmbuñ de waaye buñ ambee moom ëmb moo leen di moo leen di contrôler saa bu ëmb bi jeexee rek mu jeex waaye bu fekkee ëmbuñ moom ñeenti weer ak fukki fan donte nag jigéen mën na am jëkkër jëkkër ji faat mu yéex ka yëg ba mu des ba mat ñetti weer mu dul koy yëg kon bu fukki fan dong lay iddawu ndax dañuy iddawu dee su ko fay waaw idda dee ko fay kon mooy li gën lëng ne fa idaa na ndegam joti nañu ajalahunna seen dig ya wala junaa det bàkkaar di leen war yéen kilifa yi fii ma faal na ci la jigéen ñi def nañ ko fii anfusina ci seen bopp kat mooy jigéen ñi buñ demee ba iddaw ba tenji nañ ba tenji bi jeex su leen neexee nag ñu commencé jël seen lipilees seen maquillage seen rose à seen seen seen seen yëpp defaat ko pour lan góor ñi mën leen a xoolaat bëgg bàyyi leen waat leen lool loolu nag bu boobaa suñ koy def yow borom kër gi wa yow parent bi bàyyi ko ndax dana tax loolu dana ñotti gaay yi pour gaay yi sawar a wax ci moom wallahu yàlla xabiirun ku gis lu ko xam biti mbir yi la comme ni mu xamee biir bi bi maa taamaluuna ci li ngeen di jëfandikoo yàlla dañuy xamal ne jigéen nag suy tëñ ji kenn waru faa dem di wax waxi guulaa guul wax joo xam ne day wane ne daal yow daal da nga ko bëgg jaaduwul wala junaaha det bakkar aleykum di leen war yéen góor ñi fii ma aratum ci lépp loo xam ne nam mu ngeen koy gaar bi ci loola min xitbati nisaa ci labat jigéen ñi nga xam ne dañuy iddawu waaw kay lépp loo xam ne day tegtal ne da nga bëgg wala lay tegtale ak mbëggeel wala lay tegtale ne ah bu fi kenn nekkul mën naa fee ne la ngeen ci def ci ay critère da loolu mën naa ne a ah, nga jël numéro WhatsApp am léeg-léeg nga yónnee ko ci sa photo ah léeg nga yónnee ci sa photo ba pare déglaale ci ab kër ak yu kenn xamul day wan ne yow koy bëgg nga léeg-léeg nga yónnee ko benn son boo xam ne comme yi ñooñ jamonoy def son boo xam ne ay misi gi mbëggeel yi rek lay wax nga yónnee ko ko kooku itam bu fekkee naan si la xam na li nga koy wax waaw nii la yii dagan na ah yow de xam naa ne soobu yàlla jàmm de ya yàlla yàlla du sutura waaye de xale yi de wax dëgg yàlla duñ jooy bàyyi de seen bàyyi daal moo xam naa naqar naa remplacé waaye ah yàlla yàlla loolu sutura di gaaral noonu sa bopp ah ndaw si bu dee borom xel la dina xam ne yow mi am na looy junj a wàkk nan tum wala ngeen nëbb ko sax fii am fu si ci seen bopp mooy ngeen bañ kaa wax sunu borom nee na bu ngeen leen junjee xam naa bu ngeen junjuli te bëgg xam naa walakin waaye annakum naka yéen alima xam na yëg na allaahu yàlla annakum naka yéen sa taskurunahunna daa ngeen leen tuddun da ngeen leen bëgg ma yàlla nee na man xam naa loolu moom xam naa loolu waaye nag walakin waaye laa tuwaaciduhunna bu leen leen dig ak takk sirran ci secret ah yow koy bu simbi rek ma lay takk di ko wax bu leer jaaduwul illa an taqulu lu wax daal xawlan wax maarufan ju jekk ju rafet buy teg ne daal ah tabarakallah léeg-léeg nga indi kilo suukar bàyyi fa léeg-léeg nga dugalal ko crédit léeg-léeg nga may ko connexion léeg-léeg nga jënd sa ab jeesineer indi teg léeg-léeg nga jëndal xale yi dàll léeg-léeg nga fay courant ah léeg indi portable joxe yow kay am nga yooyu def yoo xam ne ndaw si bu fekkee ku niti la mbaa koo xam dara dana xam ne yow mii sa lii ngay def am na lu muy noonu la di moo tax mu ne wala taazimu bu leen dogu uqdata nikaa pas-pasu sëy ba ne ah ne da ngeen dogu ci takk sëy bi rek jaaduwul xattaa yab loo ko lu dul ba joti ñu bindoon ci idda ja na idda ja fii lay yam waaw bu baa dina mën na ne ajalahu deleem waala moo xam leen anna allaha naka yàlla yaalamu yëg na xam na maa fi anfusikum la ngeen nëbbu ci seen xel yeeg xol yi nangu leen kaa wax xam naa ko kon faaxdaru wooy wattandiku leen moytu ndiku leen balaa leneen di leen ci fekk dégg bu baax ne waala moo xam leen an allaha naka yàlla xafurun ku bëri sutura la waaye yi ku bëri yërmaande la de wala xalimun ku ànd ak sagoom la mu ñëwaat ci mbiram fase ba tey jigéen bu fekkee da nga fase da nga kaa takk fase ko te bokku nekk amagul dégg nga kon boo ko takkee fase ko te bokku néeg amagul te am nga loo dogaloon ca can la mbirum can moomu ak la ca tegu loolu la suñ borom di atte fii pour ñu dégg ko nee na laa junaaxa amu leen bàkkaar dit bàkkaar aleykum di leen war yéen borom kër yi in talaqtumu nisaa ndegem fase ngeen jigéen ñi maalam tamu suuhunna te laalut leen leen mooy bokku leen ak ñoom am néeg mooy sëy amagul consommé gu leen mariage bi comme ni ko ñoon jamono di waxee aw tafridu wala dogalu leen loon loon dogalu leen woon lahun na ñeel leen faridatan ab can ab dogit ne lii laay joxe can ah déedéet bu lii amee nga fase ko te waxu woon ne ñaari junni laay joxe can ci misaal wala ñetti junni laay joxe can ci misaal kon nag bu boobaa wala fukki junni wala téeméeri junni bu boobaa daal te lii am wa mattiuhunna mooy nangeen leen xéewal mooy suy dem yëkkatil dara wala bu pase amee woo ko ne ko maa la jox lii ngir wékk gi nga wékkoon yaakaar ci man waaye gis nga yàlla léegi ni ko dogalee alal muusi war na aji woomal ji xadruhu kemtalaay kàttanam waalal muqtari war na aji war na ci ku xatal kiitam xadarahu kéemtalaay kàttanam mooy ki nga xam ne wërsëgam dafa xat mu joxe lu tolloog la ma am ko am lu bari joxe lu bari rek dal di koy yeewee ndaw si ne ko maa la jox lii mataan mbir moom mu nekk xéewal goo xam ne dana ko xéewloo bil maaruf ci njekk xaqaan mu nekk lu ñu waral ak waral dégg ko alal muxsinin ci way rafetal yi mu waxaat ne wayin talaktumu na da ngeen fase leen min qabli an na njëkk ngeen leen di laal fee waxoo woon na can gi damay joxe fukki junni fii nag moom dangaa wax na can gi fukki junni la wala téeméeri junni la ci misaal bàyyil xel ñaari at yi fee woon can gi ñaata la kon dañ na suy dem yëkkatil dara jox ko fii nag woon can gi moom fukki junni la nga takk ko fase ko fa ngay ma mariage bi ci misaal kon bu boobaa comme fukki junni nga waxoon danga nga ko jox juróomi junni téeméeri junni nga waxoon danga nga joxe juróom fukki junni de waxaade faratum fekk dogaloon ngeen lahun na ñeel leen faratun ab dogal ci can gi bu baa fa war na nisfu maa genn wala la nga xam ne faratum warloon ngeen ko seen bopp ne moom mooy nekk can ga kon juróom fukk yi wala juróom yi daa ngeen ko joxe ah laa yaafuru na lu dul dañoo baale ñoom jigéen ñi bu fekkee nag na nga ñëw soxna si la kom ah, comme yow daal lii la yàlla dogal ci mariage bi lii la ci yàlla dogal jotuñu seq dara dara dara man daal baal naa la ah sunu borom nee na baax na aw yaafu wala baale allazi ka nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxoom uqdatu nikaa pas-pasu sëy bi te mooy góor gi ci boppam moo ne ah waaw man de wax dëgg baax rek laa bëggoon te moom it laa la yéene woon xëy na yàlla moo dogalee nii te man it wekkoon nga yaakaar ci man ba ñëpp gis nañ istat yi nga daan def man dong nga daan dugal man ngay wane fu ne nga ma fay wane ci Facebook beeg istat yeeg di wane ne maay borom kër wékk ma yaakaar léegi nag loolu dem na ba amatul kon la ma defoon daal tabaarakallaahu dama la koy bàyyee rek lépp ci bu sedd guy maa la ko bàyyee ci bu sedd guy lii la yàlla dogal waaye gars yi duñ def lii moom bu ñuy tàggale ko watu rek bu la yàlla dimbalewul rek daa laaj ba laaj loo joxewutoon sax nag dégg nga ko waantaafu bu ngeen baalee aqrabu moo gën jegeli taqwa ci ragal yàlla te walaa tan saw bu leen fàtte alfadla mbaax nga bay na ko mu nekk seen diggante jamono ba ngay ngoro ndaw si daan génn ak moom xeeti baax baax yi ngeen daan deflante xeeti yi ngeen daan jëflante léeg nga ñëw këram joxe fa njëgu meew ñaari junni te wóor na la meewam ñaari junni kay jërul lool moom juróomi téeméer ba sax du ko def ci meew ma di la indil weccet nga nekk mën ngaa garder weccet wa di dugal crédit di dugal connexion lu ne nga di ko def wékkante yaakaar mooy wala tantawul fadla baynakum inna allaha naka yàlla basirun aji gis la bi ma taamaluuna ci li nga xam ne yéen a ngi koy jëfandikoo lépp la yàlla xam dégg nga tax leen ko fay nee na xaafisu wattu leen ala salawaati ci julli yu juróom leen ko ci ay charte ak waxtu ya ak mboolooma ma ak yëpp wa salaatil wusta ak julli digg ga salaatul wusta nag jox nañ ko julli gu ne waaye lii gën a lëng ci téere xadis yi daal gën ci siiw mooy jullik tàkkusaan mooy jullik tàkkusaan ndax dañu wax ne moom mooy julli goo xam ne moom dong ngay julli léegi mu dem léegi waaye beneen julli booy julli rek fi lay nekkandi ba nga wiitar mu door di yéeg kon fonk leen julli ne fonk leen julli gu saagi ah bëgg nañu fonk yëpp rek su su bu fekkee da ngaa jàpp ñi nga xam ne ñenn ñu ne ne bii bii mooy wusaa kon fonkal yëpp rek loo ci mën rek fonkal loolu dégg nga sunu borom nee na waxuumu taxaw leen lillahi ngir yàlla ci julli xaalitiin mbir moom ngeen di way noppi di jaamu yàlla topp ko toppin wér-wér nee na fa in xiftum ndegem ragal ngeen ngeen nekk ci xare wala ngeen nekk ci tolof tolof fa rijaalan kon war na ci yéen ngeen liiru mooy liiri di julli mooy dox di julli aw rukbaan wala ngeen war di julli ci noo ko mën a defee rek defeel noona waa comme yii nag la la yàlla wax ne noo mën di def julli waa kon leneen rawatina fa ida amintum su ngeen demee ba wóolu mooy ba amuk dal amuk sécurité ah fadkurullaha fàttaliku leen yàlla mooy julli leen comme na ngeen daan jullee mu jaar yoon julli leen comme na ngeen daan jullee kama allamakum comme ni mu leen ko jàngalee woon maa lam takun loo xam ne nekku leen woon taala mu ne di ko ngeen defee ko noona mu del siwaat ci mbiram kër gi ne wallazina gaa yi nga xam ne yutawaffawna faatu nañu minkum ci yéen wa yazaru nañu bàyyi azwaajan ay soxna nañu dénkaane ab dénkaane li azwaajihim ñeel seen soxna ya mataa an mbir ma mu nekk ab yóbbal mooy waa ji day bëgg a faatu ne su ma faatoo lii nag aay ji ñuy bëgg wax nag dañ ko folle atte bi folleeku na atte bi folleeku na yax bi dong nga fi ne waaw kay nga bàyyi waale ko xel itam waa ji day bëgg a faatu ne suma ma faatoo sama soxna si dépasse bi ñu ko doon jox na ñëw at koddaa yeeg lépp na mat at maanaam bu si dar dagg ba mat at sariya da ko daan wéyale waaye léegi loolu folleeku na ndax laa wasiyyata li waarisin ak yeneen ak yeneen kon ilal xawli jëm ba at ma mat boobaa dañuy jëfandikoo loola xayra ixraajin te mbir moom nekkul ñu fay génne ci kër ga foofu lañ leen di bàyyi léegi nag jigéen ñi bu fekkee ñoom borom kër gi dafa dénkaane woon ne su ma fi jigéen nañ fi nekk at dun lañ leen at waddal leen at ñoom ñu génn wala ñu gànt koddaay la ah loolu dara nekku ci amuñ ci bàkkaar yéen ñi nga xam ne yéenay kilifa yi amuñ ci bàkkaar ci loolu ngeen def fala junaaha déet bàkkaar aleykum di leen war fii maa faal na ci la nga xam ne def nañ ko fii anfusin na ci seen bopp ñoom jigéen ñi min maarufin ci njekk mooy gannaaw ba idda jeexe jeexee ñu génn di per njaayu ak dagg euh, dundu baag yëpp kooku dara nekku ci wallahu yàlla azizun aji not ci nguuram la waaye xakimun aji teg la mbir fa mu yelloo mooy mbir mu ne moo kaa teg palaasam walil mutallaqaati ñeel na jigéen ñi ñu fase ñi mataawun ab yóbbul boo xam daañ leen ko jox bil maaruufi de jigéen soo ko pasee muy dem jox ko yóbbal pour mu paas ca waaw kay waaye jël bagage yi sànni loo xam sànni di jaay da ngaa mer da ngaa naqari deret yooyu du sariya xaqan mu nekk lu ñu waral ak waral al muttaqin kazalika nekk nii ma leerale lii ma fi tudd yu bay nu lay leeralee allahu yàlla kum ñeel leen ayaati ay ayaam laallakum ndax la yéen taaqiluuna ngeen mën a xelu xam ne nii la ko sunu borom bëggee tabaarakallaahu jeexal na ci mbiru sëy nag fii nag moom gis nga ba mu commencé wax na ñii lañ war a may ñii waruñ leen a may jàngale ci mbir ba ñëw fase maag takk gaag ya ci aju yëpp lu ci mat a leeral daal li ci farata leeral na ko léegi nag ya ca des foog nga dellu ci téere fiq yi ñu gën la ko tojalaatal benn par benn benn par benn ma euh. mu ñëw ci tabarakallahu ci bani israil gi lay jeexalee tey ci mbir yoo xam ne joson naa xew ci ñoom euh. dafa am peste boo xam ne dafa amoon ci ñoom mooy mbas mu amoon ci ñoom comme lii xew Sénégal ci jamono bi ñu nekk rek mbir mi nag ba amee ak la yonent bi jàngale woon ci mbiri pes ñoom ñuy daw dëkk ba pour mucc ci pes bi comme li nga gis rek léegi ci jamono bii pes yi am kenn ku ne daw dellu sa réew waaye gis nga ki taxul kenn mucc ma ngoog loolee lay leeral moo tax mu ne alam tara xanaa gisuloo di alladina jëm ci gaa yi nga xam ne xaaraju génn nañu min diyaarim bàyyi ko seen kër ya te waxum ñoom bañ fay génn ulufun ay junni lañu de dem nañ ba juróom-ñaar fukki junni ndax bëri waay te la tax ñuy génn seen kër ya mooy xadaral mawti ngir ragal dee képp képp képp wattandiku dee kese kese kese kese moo leen taxoon di defe ne feebar ba bu leen jàppee da di alak xadal mawti dégg nga ba ñu génnee yàlla xam na ñii dañu ragal dee fa qaala lahum yàlla na leen dee nag tënkuma ko ci mbas ndax mën ngaa dee te mbas du am yàlla na ay ca muutu faatu leen ba leen ko waxee rek ñu dee lii am na ñaata fan lañ fa am ñi ne juróom-ñetti fan ñi ñi wax leneen waaye daal am na fa yonent bu ñuy wax xasqiil nga xam ne mooy xali ñetteelu xalifa ci bani israila gannaaw yonent yàlla Muusa ndax yonent yàlla Muusa ba mu ba bëgg a faatu dafa wax Yuusa su ma fi jugee ya yor yëf yi Yuusa ba mu ne fi jugee ne Kaalib yaa yor yëf yi Kaalib ba mu ne fi jugee ne secret bi ne xasqiil moom moo ko yor asqil moomu nag daanañ ko dàkkantale zil kifli waaw daanañ ko dàkkantale zil kifli ba mu ñaanee yàlla pour yàlla dekkal ko gaa yi nee na ko man dong maa fi ne man dong maa fi nekk di tudd yàlla di la màggal te man bëggoon naa am ñu mu wétali ci tudd gi yàlla wax ko ne ko demal nga ne yax yu funax yëla yàlla mi ngi leen di digal ngeen dajaloo pour dekkiwaat mu wax ko rek gaa yi dekkiwaat mel nañu meloon kenn ku ne jub naan subhanallah subhanaka allahuma bihamdika subhanaka allahumma bi hamdika la ilaha illa ant di ka wax di ka wax di ka wax di ka wax tabarakallah nii la dekkee loolu lay nettali fii nag su ma yaam topp mu dekkal leen waaye gannaaw ba mu leen tam itam ñu nekkaat fi ab diir waaye ku leen gis suñ solee yére jeexantelu dee day feeñ ci yére ba mel ni yére càngaay ni muy mel inna allaha naka yàlla la zu fadlin bor mu mbaax la ala naasi ci nit ñi ndax su ko neexoon bañ leen dekkal de walakin waaye aksar naas li ëpp ci nit ñi laa yaskurun lu ñu sant yàlla caaxaan rek yàlla ne waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci diine yàlla ji mu jëm kaw waala moo xam leen ne anna allaha naka yàlla samiun aji dégg la li ngeen di wax waaye alimun aji xam la <coughs> li ngeen di jëf man mooy lebal ana kan mooy ki nga xam ne yuxridullaah dana lebal yàlla ci diineen ji jàkka yi soxla nañu nga joxe daara yi soxla nañu nga joxe jullit ñi ñàkk ñu soxla nañu nga joxe way feebar yi soxla nañu nga joxe yooyu yëpp day dëggu mën dell si yuxridullaah qardan aw lebalin xasanatan xasan bu rafet lool mooy boo xam ne yàlla keese moo tax nga def ko defoo ko ngir bu siyaar amee ñu sant la wala ngénte am wala daje am wala programme déedéet yàlla rek nga ci wutoo ci leneen sunu borom nag ne fa yu daa ay foofu dina ko fulal lahu ñeel ko adaa fan ay ful kasir yu bëree bari mooy lu ko daggee fukk ba jëm juróom-ñaar téeméer wallahu yàlla yaqbidu mooy xatal wërsëg ci ku ko neex natt ko seet ba xam ndax dana muñ wala du muñ waaye itam mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex set ba xam ndax dana muñ wala du muñ wa ilayhi ci moom itam tur jaaw na lef leen di delloo yéen ñëpp mu lijjanti seeni mbir tabarakallahu mu ñëw tuuti ci bani israila gi nekkoon gannaaw yent yàlla Moussa wax naa la ba mu fi jugee Yuusa la fi bàyyi woon Yuusa ba mu fi jugee Kaalib la fi bàyyi woon Kaalib ba mu fi jógee Asqil la fi bàyyi woon Ilias Yaza ñi ñëpp di ñëw kenn par kenn ba giir googu ñuy wax xamaliya feeñ fa nekk ci boori bayti maxdis nga xam ne ñu ngi nekkoon ca Palestine ñu ne ñoom ñi ngi bokkoon ci xamaliq yu ne yooya notoon réew yëpp amoon doole lool ba ku ñu ko seq ak daañu la duma teg ay galak ngir yàlla jegleel gum leen jegleel tabaarakallaahu mbir yooyu ñu dema dema dem ba ñoom la nekkoon ci ay yonent nekkatu fa dema dema dem ba benn sëtu yonent yàlla Yanquba dong moo fa nekk bu mu amee doom doom ji ñu ko Samwil Samwil nag ba mu màggee yàlla yónni ko def ko mu ab yonent pour mu gindi jaam ñi teg leen ci siraatal mustaqima wal leen mbir mi naka la ak nan la fekk na yàlla def gii mu def loola dafa am leneen lu mu ci bëgg a jàngale pour gis ne gaa yi ah not nañ leen baw nañ ci seen kaw te xamatuñ fu ñu jëm ndax xamaale tuune yi def nañ la lañ bëgg a def tabarakallah loolu lay jàngale foofu ñu daw ne alam tara xanaa gisuloo ilal mala i jëm ca mbooloo min bani israil min baadi Moussa gannaaw faatu yent yàlla Moussa iskaalu ba ñu waxee li nabi ñeel ab yenentu boo xam ne lahum ñeel na leen te mooy yent yàlla Samwil ñu nekk Ibaas saxal wala yónneel taxawalal lanaa ñeel ñu malikan benn buur chef d'état boo xam ne nu xaatil daañu xeex ànd ak moom fi sabilillah pour ñu taxaw ci diine yàlla ji ndax ñun daal gis nga amaale ko ne xaw nañ ñuy rey de xaala yonent ba bu fekkee farataaleef na aleykum ci yéen alqitaala xeex man daal ragal naa ci yéen bu ñu dogalee ci yéen xeex allah tuqaatilu ngeen ñàkk a xeex de man loolu laa ragal de loolu laa foog de ndax yéen ñii damaa yaakaar da ngeen a sonn rek di wax waxuñu ko sonn xaalu gaay yi ne ko moomaa lanaa ana lan moo ñuy dal lan mooy xew ba an laa nu lan moo ñuy dal ba duñu xeex fii sabilillah ci diine yàlla ji pour yëkkati diine yàlla ji ndax ñun bu doon yëkkati diine yàlla ji sax fii ñu jaarak ak suñu maam yi jaar fekk suñu dëkk bi wax dëgg yàlla jar nañu xeex pour libérer leen jox leen indépendance waxaat uxrij naa di gëloo génn nañu min diyaari naa ci suñ kër yi waab naa inaa ak suñ ay doom ñii ñu jàpp leen ñii ñu rey leen te def loola mooy waa kër jaaluta yi lii lañ waxoon wax ko Samwil nee na falamaa kutiba ba nga xamee ne farataaleef na alqitaalu xeex alayhim ca ñoom ña doon sàkku autorisation xeex te wallaw du mooyu nañu ngir ragal illa qalilan lu tuutee tuuti minhum ca ñoom ñu néew a néew te mooy ñu àndoon ak taaluta bañu naan ci dex ga ñooñu rek ñoo cay jàmbaar wallahu yàlla alimun aji xam la bi zalimina ci tooñkat yi te lépp lay lijjanti mu leer dégg nga ko bu baax a baax aha wa qaala wax na lahum ñeel leen nabiyuhum seen yenent bu ñu soloo ba ne leen inna allaha naka yàlla qad baasa yabal na lakum ñeel leen taaluuta taaluut malikan mu di chef d'état yor pouvoir bi gayi na ko yow sëriñ bu ñu fontoo kii naka la mën a amee pouvoir ci suñ kaw ñun ñuy kilifa di nataabal di lépp ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi nga indil ñu baatala boo xam ne kenn xamu ko nga ne moom moo yor pouvoir bi mun ñu kaa nangu ndax critères yi daje ci moom pour mu mën a yor pouvoir am na ñu ko fi yor ñu bëree bëri te moom yoru ci dara hmm? mu ne ah def leen ndànk nag ki ma leen di jox pour ngeen xam ko yàlla dana saxal benn mandarga ca bopp ba te dañu diw bopp bi waaw te yàlla itam wax na ne. su ngeen ko nattee ak yetti yonent yàlla da Adama wa ñooy tolloo ñu natt ko mu tolloog moom ñi diw bopp bi mu mel na mu war a mel mu ne kii daal mooy kilifa gi leen war a jiite gaa yi nag mer ca lool am ci lu leen naqari dégg loo xaalu ñu ne waaw an naa yakunu naka lay nekkee lahu di ka ñeel moom taaluta mii al mulku pouvoir lay naa ci suñ moom fu muy jaar ba yilif ñu daal lañ mënul xam ñun wa nax nun nag a xàqu ñoo gën a yay bil mulki ci nguur ci pouvoir minu ci moom ndax bu fekkee doole la ak bokk ci yax bu dëgër yax bu rëy a ñun niñ ci nekkee nekkee wu kon moom fan la jaar ba nekk ci pouvoir ñun mënu ñoo xam li ah te walam yu te joxe fu ko saatin yaatu yaatu minal maali moom bu fekkee alal la a ay bien dara la ci amul mu ne leen déet mbir mi nag demeewul noona yéen a waxoon ma tànnal leen njaboot tànnal naa leen njaboot lima ak kayfa bu mu leen ci fekk doxalee leen ni seen borom waxee rek ngeen doxalee noona dégg nga xaala mu ne leen inna allaha naka sunu borom astafaahu baddil na leen ko tànnal na ko pouvoir bi aleykum ci seen kaw wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu yaatu fil ilmi ci xam-xam bu fekkee xam-xam bu ñu yoree nguur la yàlla jox na ko ko ba mu doy waaw yàlla jox na ko nguur xam-xam ba mu doy waaw wal jismi ak kattan bind bu mat yàlla bindal ne ko bind bu mag a mag a mag a mag léegi nag puwaar bi ngeen di wax loxol yàlla ci la ne mooy seet ku ko neex mu jagleel la pouvoir boobu wallahu yàlla yuti mooy jox mulkahu nguuram mooy pouvoiram man yashaaw ku ko neex kon yéen ngeen diingat ak ngeen contre ak lu mën di xew lii moo neex yàlla te décidé na yàlla wallahu yàlla nag waasiyoon aju yaatu la ay ngëneelam waaye alimun aji xam la ku ko yelloo pour mu jox ko ngëneel loola mu ne pour ma wax leen ne nag mooy seen buur mooy seen chef d'état am na kéemaan yu ko yàlla booleeg kéemaan yooya am na kéemaan yu ko yàlla booleeg fekk na la waraloon loola mooy dañoo amoon genn kees goo xam ne kees gi yaatu woon na lool bagaas yi yent yàlla aadama yu bëri ci woon bagaas yi yenent yu bëri ci woon bagaas yi yonent bi sallallahu alayhi ak waa këram sax yu bëri ci woon ñu ko daan donnante di ko donnante ba ci jamono yonent yàlla Muusa ak aliwaam yaag yëpp ngi ci woon waaye bani Israayil fu ñu musaan génn di xeex yëkkati xeex goog yëkkati kees googa suñ déggee malaayika yi xaac ci kaw rek ñu xam ne daañu am ndimbal daañu gañe waaye ñu nekk ci nekk ci noona nekk ci noona ngir rek dem ba ndëngate goo xam ne ñoom bani Israël ñi ngi ko doon def di ko def di ko def di ko def di ko def di ko def di ko def di ko def ba ah dajeeg xamaaliku ne yooyu yàlla nangu leen ñu nangu kees ga ñoom it ba ñu nangoo kees ga dem di ci def ak njubadi di ci def ak njubadi di ci saw yàlla na toll leen ay balaa yoo xam ne balaa yi la leen kay mën a génneel da indi leen si balaa yooyu ak natt yooyu tabaarakallahu mooy lañ doon def ci kees ga ñu di ko diwoo rek pour mën a wér loolu dong moo leen ci mën a génnee kees googu nag ñu ñàkkoon ñoom waa bani Israël te xamaale ko ne jëloon ko te mënuñoo fexe ba jot kees ga yàlla ba mu leen booleeg taaluuta taaluuta dafa fexe ba yàlla booleeg ak malaayka yi ci kéemaan ñu indilaat ko kees ga kees ga nag da ci bër yu ci nekkoon ñoom ñu ko daan tiitiroo ndax seen doon maam la woon mu ne leen nag bokk na ci li ko yàlla jox li wane ne mooy chef d'état bi wa qaala lahum nabiyuhum ba ñu sàkkoo ci moom luy wane ne mooy chef d'état mu ne inna aayata mulki naka kéemaanu puwaaram an yaatiyakum mooy mu indi leen ataabutu waxande wa mooy gaal ga nga xam ne la ca nekkoon ci ay bagage xamaale ko ne ñoo ko jëloon yóbbu ko tabarakallah fiihi nekk na ci sakinatun ak dalu xol min rabbikum bu bàyyi ko ci moom ndax kees bu ngeen ki gisaatee dana leen wóor ne ku ngeen xeex ak rek da ngeen ko gañee wa baqiyatu ak ndesit wa baqiyatun ak ndesit min maa taraka ci la bàyyi woon na ko alu Moussa wa alu Haroun yént yàlla Moussa ay jeexantan waa ki bagaasam lépp ma nga woon kees ga ma nga woon ci kees ga ñu denc ko fa di ko donante taxmiluhu dana gàddu kees ga al malaikatu malaayka yi indi leen ko inna fi dalika nekk na ci lii laayatan kiimaan buy wan ne yàlla mën na lakum ñeel leen ne kii in kuntum muminin ñu nangu léegi nag ba nga xamee ne taaluuta départ na pour dem ca bani israila pour xeexi mu tànn ci ñoom juróom ñaar fukk ci armée bi ñoo xam ne dañu koy jàppale juróom ñaar fukki junni ñoo xam ne dañu ko war a mën a jàppale ci xeex bi nii juróom ñaar fukki junni mu xamal leen nag na leen suñuy dem daañu am ndox mu ñu romb ndox ma lu waay mar mar mar bu mu laal ak lu mbooy mi tar tar tar bu mu laal de bàyyi leen ko foofa dégg nga ko bu baax a baax lu waayi tar tar lu mbool ah, lu bi tar tar tar tar tar bu leen ko laal dem rek ñu d'accord ak moom ñu dem ci yax bi ne falamma fasala ba nga xamee ne génn na taalutu bi junuudi ànd ak soldaaram yooyu bàyyi ko baytul maqdis ci jamonoy mbooye mu tar lool la leen def benn discours nag benn conférence de presse na inna allaha naka yàlla mubtalikum aji nattu leen bi naarin ci genn dex goo xam ne mi ngi nekk diggante ardun wala urdun ak Palestine fa man sariba minhu képp ku naan ca dex googa fa laysa minni bokkuloo ci sama njaboot waaye wa man lam yatamu képp koo xam ne mosu ca ak li mar wi tartar mu muñ ko fa innahu naka kooku minni ci sama njaboot la bokk illa man ixtarafa lu dul koo xam ne tànk na xarfatan aw tànkin bi yeddi ci loxoom lu koo xam ne guux na ci benn guux de kooku moom baax na waaye ba ñu demee ba gis ndox ma ndox ma sedd lool neex lool mbooye mi tar lool rek ñoom ñëpp fa sari bu minhu ñoom ñëpp naan ca ndox ma illaa xalilan lu tuutee tuuti minhum ca ñoom ñu néew ci naanul ñu ci naanul kat nee nañ mooy trois hectares ci desoon fala maa jaawasoo ba mu jéggeekoo moom rombee wala dinaa gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu maahu ànd ak moom mooy ñi nga xam ne naanu ci dex ga xaalu ñi nga naan laa taaqata lanaa déet kàttan ba nga xam ne naan nañ ci dex ga ña naanoon ña nga naan laa taaqata lanaa te déet kattan di dinañu ñel bi jaaluta ba junuudihi jaaluta daal ak mbooloom mii ñun mënuñ leen a jéngu waaye xaala wa allazina gaa yi nga xam ne yazunnu wóor na leen na annahum naka ñoom mulaaqu llaahi way dajale nag seen borom mu fay leen ñoom ñoo dalal xeli gaay ne kam min fi atin bëri ne mbooloo xalilatin mu tuuti xalabat du mën a fiyaatan mbooloo kasiratan mu bëree bëri bi isnillah kon gañe ci loxol yàlla la ne ñun nag xëy na matoon nañ juróom-ñaar fukki junni toll ci trois hatres léegi loolu du ci dara ñii la ñuy bëri bëri nu dem rek suñu deme daal yàlla daal mu ku bëri sutura la tabaarakallah yàlla mën na def sutura ñu gañe bi isnillah ndax lu am lu ne ci nameelu yàlla lay ame maa saabiriin ànd naag muñkat yi ba ñu génnee nag tabaarakallaahu ndeke booba yént yàlla daawuda mi ngi ci mbooloo mi bokk ci ñi nga xam ne bokk ci armée ba taaluuta ba ndax baayam dafa amoon fukki doom ak ñett moom mooy ki ci gënoon nekk ndaw ba muy sàmmi nag génn mbooloo mi romb ko mu romb aw xeer wi na ko forma maay xeeru yonent yàlla Haaruna ba rombaat beneen mu ne ko forma maay bu yonent yàlla Muusaa ba rombaat beneen mu ne ko man mii nag ci nga war a rayee jaaluuta mu jël ñetti xeer yëpp dugal ci sonko jéeréem bi daal di ànd ak taaluutu nag ba ñu demee ba xeex bi tàng ba tàng ba mu ko sànnee xeer wi rek xeer wi dafa faatu xaw ma jaaluutu dafa faatu ba mu faatoo nag tabaarakallaahu taaluuta laajte kan moo ko rey ñu ne ko samwi ah, laaj taaluuta kan moo ko rey ñu ne ko kooku de ku ñuy wax daawuda la ñu ne nañ ko indi ñu xool ko bañ ko xoolee xam ne kii kat borom mbir la tabaarakallaahu ba fa yenent bay jug yàlla nome ko nubuwa ka yoroon puwar ba itam di taaluuta ba mu demee ba jug fa itam dañenteeg mu màgg moom it ñu yenaale ko puwar ba maanaam mu yor nguur gi yor nubuwa gi dajale ñaar yëpp ci moom la njëkk a dajee tabaarakallaahu keneen ku muy dajawaat ci yow nag door dajawaat ci yow li ci des boo ci bëggee lu la yitteel dawal ci tuuti rek ñu gaaw tuuti wallaahu wal ma ne wala maa bare su ba ñu génnee li jaaluuta ñel jaaluuta ba junuudi ak soldaaram ya xaalu ña nga naan rabbanaa yow sunu boroom afrique yàlla na nga sotti alay naa ci ñun sabran ak muñ yàlla na ñu tur ak muñ gu doy wa sabbit yàlla na nga dëgëral aqdaamanaa sunaay ndëggu wanzur naa yàlla nag ñu dimbale alal xawmi ci gaa yi nga xam ne alkaafir ñooy way weddi ba ñu defee lii fa hadamuhum gañe ñu waa kër jaaluuta bi iznillah ci nammeelu yàlla wa la ray na daawud yonent yàlla daawud ma bokkoon ca armée taaluuta ba ray na jaaluuta waataahu jox na ko allahu yàlla almulka nguur wala xikma ak nubuwa gannaaw faatuk samwil mu dajale ñaari yëpp te musul daje ci kenn ci la ko wa allamahu xamal na ko mimma ma ci lu ko neex ni picc yi sab ni ñuy ràbbee ay mbubbi koŋ ak yeneen xam-xam la ko yàlla xamal sunu borom ne wala laa dafallahi bu doon kan jañug yàlla jañalug yàlla annaas nit ña baaduhum lenn ci yéen mu leen di jaña bi baadin ci ñenn ñi bu doon ñu baax ñi fi nekk yàlla di leen xoolee ñu bon ñi kon alak alak kon na aduna bi la fasate kon yàqu kon na alaardu suuf bi suuf si aduna bi kon ñi baax ñi fi ne di daara yi ak jàkk yeeg julleekaay ak nit yàlla yi fi ne tabaarakallaahu la yàlla di xoole pour ñu bon ñi fi ne pour bana maas na door adduna bi yëpp la fasil ard walakin allah waay yàlla zu fadlin boromu mbaax la alal alamina ci mbindeef yi xam nga yenent bi am na fu muy jàngale ne toujours yàlla dana jeñee ci jullit bu baax dana ci jeñe ay duma yoo xam ne wala ay balaa yoo xam ne waroon naa ko wàcc ci nit waaye gis nit ku baax rek tax mu xool ci kooko ba wàcc ko ci nooña mooy wala laa daf wallahi naasa baaduhum bi baadin la fasl lar walakin allah zu fadl ala alamin tilka aaya yi nag ayatullahi ñooy aaya yàlla yi natluwaha ñoo koy jàng alayka ci yow lépp nag bil xaqi mu tegewu ci dëgg wa innaka naka yow wér na ne yow sayduna muhammad la min al mursalina wér na ne ci yeneen yi nga bokk donte waxoon nañu la lasta mursalan waaye daal wa innaka la min al mursalina tabarakallahu sadaqallahu azim ñu jàng fatiha salatul fatih def ko hadiya ci yonent